jamaal jàggalaal jëwër jummam ja muy saf malaaka boole koog jomam ja sàndarma saak alkaati ñay garde di ko bijjanti xaadim mel ni gaynde nee na keroog la waa libar di baalu àq bàmba tey bijjanti nee na keroog la waa ji sopp bàmba jibulu naan ko bindal ma yow mi sebulu sax bàmba naa ko laa ilaha illa muhammadun arsalahul ilaahu mooy ngën gi lépp luy bawoo ci làmmiñ saxoo sëriñ Moussa ne déglu ma wax la bés bu Bàmba tabe ca gaal ga riiw ma naan ko yaraw labbe keroog jamaal jaag jalaal jëwër jëmmam ja muy saf malaaka boole koog jomam ja sandarma saak alkaati yaag ñay garde di ko bijjanti xaadi mel ni gaynde nee na keroog la waa Libreville yendante di baalu ak Bàmba tey bijjanti nee na keroog la waa ji sopp Bàmba ji bulu naan ko bindal ma dénk yow mi si bulu sax Bàmba naa ko laa ilaaha illa allah auzu billahi min aseytaan rajim bismillahi rahmaan rahim wa inni aizuha bika wa zuriyataha min aseytaan rajim rabbi auzu bika min amasat sayaatin auzu bika rabbi an yahduruuni jërëjëfe sëñ Tuubaa jërëjëfe sëriñ Tuubaa jërëjëf sëriñ Tuubaa bokk jullit yi bokk taalibe yi noo ngi fas yéene ànd ak murit yëpp ci li xewoon ci bis bi muy ñibbisig sëriñ bi ñu gën ko mën a wax ci nasaraan retour d'exil de Cheikh Ahmad Bamba au Gabon tukkeem bu sori boobu te metti lool tiis lool waaye yàlla fay ko ci may yoo xam ni jalooreem yooyu mu amoon te mu wàccoon fii ci waax bi ci bisu tey bii moo tax nu mën a toog fii di ci ànd ak murit ak àddina bi bépp ngir nu bëgg a xam li ci xewoon sunu kem kàttan lépp duñ ko mën a indi ci tukkib géej gi ndax ñibbisi bi évétement la boo xam ni bari na sax ñu ko bàyyiwul xel bisu tey bi tey bu nu ñu gore woon te xam li xew histoire bu mel ni mësta am ci histoire de l'humanité kon ndakaaru tey bitik waru fi woon a ubbi tey ministre bi warutoon liggéey tey maçon bi warutoon a dem fenn tey lu dul ñu jël sunu kurus tey di wax jërëjëfe sëñ Touba màggalu Touba yàlla lañ ko doon defal moo ko moom naam waaye ñibbisi bi nag kenn rekk a ci am manoore kenn kenn rek a ci def ay jaloore ba tax nañu ñi xam le xew dëgg tey tey bàyyi nañ xel sëriñ bi bisub tey bii bu sëriñ bi ñibbisi wutoon dara du taxaw léppay échec loolu lañ leen a fas yéene wan wax leen la ca xewoon indi leen la ca amoon ba nu xam ni histoire dëgg-dëgg noo ko am jaloore dëgg-dëgg noo ko am waaye ay manoore dëgg-dëgg itam noo ko am loolu nag ci 11 novembre bii la xewoon tey danañ ci ñëw ci kanam tuuti ba wax leen sababu ñibbisi bii lan moo ko waral dëgg-dëgg maam Cheikh Anta ko fekkoon làmbara na waxanteeg moom nu waxtaan seeni waxtaan ba tënk ko waaye ko ko jël si woon woosi ko mooy sëriñ muuduloo dagana sëriñ muuduloo dagana loolu danañ ko indi léegi ci kanam kon noo ngi siyaar baax Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan sunu boroom yokk yokk ko wéral ko guddal fanam lool sàmmal nu ko téyel nu ko aaral nu ko ndax diine ji ni mu ko te kilifa yëpp ànd kook moom noonu la ñuy siyaaree bu baax a baax mbooleem umma islam bi bépp ndax sëriñ bi bi mu tukkee indi sëriñ Caam bii fecc ko ci réew mi ñépp ci jaruñu noo ngi siyaar képp koo xam ne bis bi bàyyi nga ko xel muy le 11 novembre retour d'exil de Serigne Touba ñu ci siyaar sëñ Abdou Samad moom Serigne Souhaïbou ma ngi koy woote ca Touba wote bu am solo tay wàcce nay kamilam wona ay waxtan kat def na ci lu lu lu am solo ndax it warnako warnako ko ko xamni bu seigne touba ñibbi si yow do am jamono bis bi war nga ko bayyi xel ñun ñi ñep bu seigne bi ñëwaatutoon mën nañu feñ jamono waye nak ay kéfer lañuy don, doon ci kéfer ga lañ jëm diina ji ñibbi si sëriñ tax mu ñong fi ci rew mi loolu lañ ko bëgg indé indee Serigne Moussa Gueye relateel nañu ko bu ndar noo koy siar baax di ñaan suñu borom yagal ko te wéral ko ci barké Cheikh Khadim di siyaar wa port port autonome de Dakar portu Sëñ Touba bi nga xamni tay tey mool yépp dañ ko dañ ko bloqué ñom bay Maguette Diop bay fallu andando ko ak talibi Serigne Touba yi ñang koy célébrer ngontum tay mi ñu tuddé ko Cheikh Ibrahima Fall soxna roqaya mom Cheikh Ibra nu tuddé ko ko te lu am solo no ngi ñaan ci barke Serigne Touba euh, nu àggale ak jàmm ci barké Khadim bis bi tay bis bu symbolique la bis bi yar jaron tay rukkat ay kënu nako touba bi défé won fi ci port bi bis bi mo jaron tay nu administration bi sax état Sénégal tay waron nañu ci biir bureau yi ñu yëg ne am na lu xewoon ci bis bii fii ci réew mi ndax bu doon tubaab yi ñoom bu bu ko seen nit defoon tubaab yi bu ñu gañe sëñ bi dañ koy dañ dañ koy damoo ci école yi bu amoon réussite ci sëñ tubaab dañ koy damoo ci seen ci seen bis yu mag yi ndax résistance bi leen gën a jaaxal Cheikh ma du Bamba kon nag nun comme ñëw na dem na ba ñëw la ko sëriñ Mbay Saar waxoon tëggi ndëndëm di bakku di ut keur sering gu mag serigne bi deg ko ne ana lolou lumu nuko serigne bay sar mo yengu serigne bi ne len bu agsee dana wax lu ci jublu bi serigne bay sar ñewé serigne bi ne ko bay sar loo jublu ci yengu bi nga yengu mu ne ko da nga xare ba dàq beure nga ba daan top na la ba tay gisuma fo man nak muñ na ko muñ mënatuma ko mun damay bakku señ bi muñ ne ko mbay sar mu ne ko mbacke mu ne ko dana bakku de waye bu sama soror yi taxawé ca kaw moy doon samay bak nun nak la dalon señ mbay sar dano dal mënatunoo muñ nan nu bay rek nuy bakku kon ci lañ bëgg ñëw bi après avoir examiné certains problèmes relatifs à la colonie le conseil a approuvé la décision des membres ci désignés d'exiler au Gabon le marabout Cheikh Ahmad Bamba qui doit être embarqué le 21 septembre 1895 une pension de 50 francs par mois lui sera accordée durant son séjour au Gabon

dan may sanki waye fofa leer na mané yang fa nek ya nga ma fay xaar andey san ñu jël ko yobbu ko ci un forêt verge faire forêt bo xamni bala nga xam Gabon mo doy war nga tek sa tank Gabon du luñ la mëna wax ci ay image du lu Mamor mëna netali da ngay dem ba fofa nga xol Gabon nga ne fan moy Gabon ak lan moy Gabon ndaysan ma ci profito sëñ ma ñaan bala ma cee ñëw am sunu man naa ni sunu jarbaat sunu lépp muy soxna nday Faatu Tage di doomi ci Ablaaji Ablaay Tage moom Seex Saaliyu Mbàkke wàcc liggéey mu ngi noonu doon doom ci soxna moomi sama demu Gabon yàlla nga ko jaarale ci yaayam jooju ne ma dinga dem ba Gabon ci siar sëñ baara mam Mor mbacke di len ko jaal di ko jaal sëñ Ablaay bu baakha a baax moo nekkoon taawub sëñ Ablaay tage yàlla dogal mu wacc ab liggey ndaysan ci keur burum këram fam nekkon muy tiss wo xamni ne métti na waaye nag euh, mënta ñàkk waaye yàlla na yàlla na ci barke Cheikhul Khadim buñ sañon rek koy dal ñu mel ci serigne saliw mel ko ci murit buñu sañon lepp lu bok ci mom dafiy ne ba mu doyal ci barke Cheikhul Khadim kii moo di taawam yaru lool baaxoon lool boo déggee ci niñ la koy waxee amutoon benn jal-jal waaye nag noo ngi ñaan Serigne Touba ci barke bis bii mu jóge woon indil nu sëriñ bu seetlu bii bu rafet bii yàlla bu mu fa gis dara lu ko naqari kon maa ngi ñaan képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission bi defal ma fatiha maa ngi koy dagaan damay ñaan rek fukki lixlaas ak benn yene yol bi soxna Ndey fatou Tagge mi yàlla jox ko ko ci daraje seigne touba te nongi koy ziar rew mi mep di ko jaal sëriñ Muntaxa di ko jaal njabootug sëñ Saaliyu di ko jaal njabootug sëñ bu ma neexee wax ko di ko jaal sunu bop, di ko jaal television Touba TV ndax ñun euh, lu dal ni rek ñun la dal ci sunu kaw nong koy jaalaat soxna soxna diko di jaal way jurumu bu bu baakha kon ni lor rek la gabon gogu ma don wax euh serigne bi ndaysan ah sawaay fi dem len fa Fi nak la ko serigne mourlo Lo Dagana fekkon fi moy Mayumba ndaysan Mayumba bo digge serigne Moussa kanan Cheikh Bamba am juromi at Mayomba ken waxatul Samba ki Demba Bamba Fi fi mi ngi ak Luango Congo Brazzaville la frontière boo gisee muy wax naa inna muddatalati maatuqa fi Congo madaa sama juróom-ñeent euh, mbendi ati Gabon sama juróomi ati Gabon du niil yàlla dana ko fay ci bisu penc ba boo déggee muy tudd Congo dangay taxaw fii di jàkkaarloo Congo Brazzaville fii mooy fii mooy seen seen seen bi nga xamante ne fa la fa la fa bi nekkoon fii la fii moo fii moo fii moo sori lool ñu dem sànniji ko forêt bo xam fi fi buñ la waxee la fi xew fi la defoon ñenti bant bëgg julli ñu nako ko ko fi jullee tassara jakka ja fekkon na Cheikh Bamba defoon jakka fa penku quartier ya mu jublu makka bu quartier gay it Bamba noddu musa Ka nu ko wax mu daldi kabar non ya farko gedd quartier ga wëqëf ñëw naan ko jakka xew xew fi doonu xatal yow sa kay bi xaju fi ñeenti bant rek xajoowuñ ko moom quartier ga ñëw tasaare jàkka ja njool màkka ñëw naan ko am nga maxraja njool màkka wan na koy ajaayibu jox ko ndigal mu taalifaat mawaayibu ba mu bindee salli ba naan wa sallim njool màkka tontu ko alal mu jibril tegtal ko duro yaasin bur yàlla tompeel ko jumaa yi boppam naka da nga yaari jumaa ci réew ma te léegi nga dellu yee salaati kiiw ma danga nga tabax jumaa ju rëy fa njurbel ju kenn dul buddi kenn du julli nërmal da tabax jumaa ju rëy fa Touba te léegi nga dellu Daaru Salaam ak Touba ndekete am na buuñaa Masaalikul Jinaan amaat na buuñaa Daaru Salaam am buuñaa Daaru Muxti am boo ko bëggee lim sax am problème jumaa yi Sëriñ Touba ci réew mi kenn mënatu koo lim ndekete lam ne woon ni faali way xaa i fawzi bila ana bi kaw ni xaddimal Mustafa tatabaynu Nek gi ma nek khadim rasul nan ko tas dana wour aduna bi nan ko jobe sunu waajee dar dakaru kona kiri Grand Bassam def mokel mokkel ko abarisit tumi dawme boma banana ka cieki wour dem dem ci rew yoyu ñu yóbbu ko mayom ba ko fa interne ko fa te Merlin waxon nako ko le clerc Merlin c'est lui qui est le euh, gouverneur général bu Dakar Le Leclerc est commandant cercle bu Louga seen rapport yi au gouverneur le Mouté mu lan la la lecture des rapports de Moussa Merlin et Leclerc est fait comparaître Ahmadou Bamba a été d'avis et l'unanimité qu'il y avait lieu de l'interner au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ses enseignements soit oubliée au Sénégal ay Si nan ko fàtte bu kenn xamati Thierno Birahim bu kenn xamati Serigne Massamba bu kenn xamati sëñ Daaru Asan Njaay bu kenn xamati sëñ ma bànji waaye bu kenn xamati sañ ma Diop Paxa lii la tubaab bi waxoon ñu foog ni ñoom nañu defoon roi yi fi jiitu woon def ko sëriñ si yenn yonent yi seeni noonu jamono def leen ko mën nañ dara ci bàyyi Seex Saaliw déedéet ndekete mënuñ ci moom dara gis nga ko noonu waaw kooku kooku kooku moom mooy mooy Merlin mi nekkoon gouverneur général bu Dakar waaw mujj na nekk gouverneur Saint-Louis Merlin parce que bul fàtte ni sujja moo waroon a ñëw mais Moutier intérim la woon ànday saan ñu daal di jël sëriñ bi fu ko jaarale ah ndar ndakaaru Conakry ndeysaan mu dugg ci gaal gi wax ne àllama ni rahmaanu fi safina bi an na ni xaddi musil madina ndeysaan keroog la romb waa Indraloos musin ba rulee ba weesu Mandarloos capitaine balé moko téru bawo angleterre la tuuru yor yor la galga ga tebbi jëm Conakry bisub dibeer non ya naa ngiri ngiri ke tàkku sani souf galga costé dun buñ nan tubak maran yey konté fofa la bamba ñëk gisé kurmana ak timili ku kurbo ñu néewi mana mu dol romb akaraak wa cameroun sa sandra la wacc galga na fa ñuul waxtu la fa taxaw ñu lit mu déqi ila konakiri tubab yey soqi mu dellu war ca gaal ga gis nga téyel ma bato bi ma won leen gars yi bato bii mi ngi mi ngi guddee quatre-vingt-quatorze mètres loolu maa ngi ko déggee euh, ki ma jox archive bi ah sëñ Ibrahima say say say maa ngi koy ziar bu bi nekkoon is tarax ya te àndoon ak Cheikh Ablaye Dieye ci UNESCO am na nag yu ma Cheikh Ablaye Dieye joxoon ci école këram gi ci école macha allah fii maa ngi nuy doomam Cheikh Bamba ak ña nekkoon Ndar da ña nekkoon Gabon doon servir tubaab bi nekkoon ay sénégalais. ñoñu mais le bateau bi mi ngi goudé 94 mètres galgi gi dafa am naissance ñi ko liggé en 1882 mi ngi suux 1907 kon galgi gi mi ngi duré 25 ans bateau bi zone brute la ville de Pernambouc galgi gi marine marchande ñoko 1000 bateau bi mille chevaux Galgi, gi ki dawal mo tuddu ruksu ruksu mo dawal bato bi indi sering bi tay fi ma ruksu moko dawal mais ruksu aussi mo dawal bato bi ndaysan ndaysan gaal gaa nga jëm boma bo wi buyama ci côté waaxi matadi ak buyama ko français loango ak bouloir rombu na len bu yag mo doy war brazzaville ak kabinda ta binda ñu nan ko yow mbindef nga am ki bind parce que booba histoire yi seigne tuba def ak jaloore yi def touba bi jaaxal na leen mun may liggey kat rasulullah ha fofu la dam wacc fanaan beser wali poste bu lënëm sore naag baa fuli ba fili ba fili moy mayomba ña fa doon nek di lak xet wo ñoo tuddu ay ba fili ba fili motax ba fil rek lay bind des fois bu nekké ci nit ñi lay bind loolu waye àll ba ma indi bo diggé galva galva moywa wa lambarna lambarna lako mam Cheikh Anta fekkon ci la bëgg ñew lambarna gogunak, nak fi, joggé fi señ Mourlo Dagana fekki ko fa nday ah waaw waaw mi ngi nii de ay lambarna de <laughs> lambarna ngi ni xobi garab yi ronu nday ba reen yu reen grawo fa nek kérok señ kosom señ muntaka mam cierno non koy siar bax keroog bi ñëw ba fofu da summi da summi mbub ma dal di koy denk señ xaadim mané ko ah mbàkke jot la nak de mané ko ko dé lama la ma yomba ba dugg ci dex ga nit ñi naan mam Mor mbay dugg ci dex ga <laughs> yow yow yëg nga ko fi nak ci lambar na nak mbàkke da jot barké señ Tuubaa gis ngeen dex gii ku tedd ki nga ki daan jité diwan tok fi xam la am la xew ak arasa kursu yu mo ci daan jappo dex gii barké modou Mbàkke mango yang nga fa andey sànn sëñ Modou Lo Dagana jóge fi dem setti ko ndekete ci setti si sëñ Lo Dagana ci le Touba di préparer pour ñibbi si ndax mam Cheikh Anta mi mi jël si moy préparer ñibbi si sëñ Touba gay yi ay histoire la bëgg indi voilà kat yek ñepp la bëgg ñu sétan tay waaw daanu wunu ñun mourid yi sunu sëriñ def jaloore ñu ne duñ ko wax xare Badar dañ la koy netali nga ne gongo ah coupe du monde bi rek ku ko jël doo bañati ku ko wax sëriñ bi def lu lii nga xam ni kenn mësu koo def nu ne duñ ko wax ah waaye nan lu bàyyi nu bànneexu nag barke borom Tuba tey li ma yëg moom nan ma bàyyi rek ma wax voilà nañ woo gaa yépp bu seetaan ma wax leen li xewoon ba ku fo ku ne foog ne dara nga fii ci réew mi te doo dara bis bi bu esegoon nit ku ñuul du fi am baat bisu tay bi 11 novembre bu ken kenn du don dara personne kenn du exister seigne mulo dagana joge fi teud ba goudi am lu ko ye ne ko fekkil seigne touba fam ne joxaat ko sa bop soko defut lo jaamoti yalla yalla du ko nangu mu xey wax ak wa keureum njabot gi ci kokku gi seigne mulo dagana ma sama serigne ba sama xarit ba seigne mulo dagana ko koy nguur kookoy góor ndeysaan jóge fi loola ñëw waxaat ko ko mu saraxee def ay affaire mu toog ba yàgg rek dal di dal di ne ku ma gisati damaa gis sëriñ bi war fee jógee seeti sëñ bi anday ah, saam xawla dëkk yi wër dem na ba ñi bàyyi woon senegal ñaanal nañ ko saraxal ko ne kooku moom nekkatul àdduna ndax at la fi jóge woon te at ma dellusi na te gisatuñ ko te sëñ Modou daga na bis bi mu jógee fii na day seeti sëñ Tuubaa benn bu ko daan nettali ñoom sëñ Fallou daan leen xaw ma fu ma jëm man sëñ bàkk yu fay moo ma ni sama baay la nettali sëñ Modou Lo Dagana moo wax sa wëy sunu wëy jur wa maam Ibrahima yàlla na yàlla dolli leeram kaay ma wax leen bi may seeti sëñ Tuubaa fi ma jaar sëñ Musaa Ka daal dina koy yaxal nag danaa ko wax ca nee ndax seigne Moussa Ka moni ni un an la wër seigne Touba deglu dekk yi dekk bo xamantene ni bo rombé fi pour nga dem fa pour nga dem fa ngay fanani ay kilomètres seigne Mourlo daga nangi ni jambar jangi ni way mouride ku xol ki ma ngi ñaan barke seigne Touba yalla bu sa metti ci adina man ki rek la bëgg barke Cheikhul Khadim dana ko dom doom sëñ Mourlo daga ta motax ñing koy bis ci mbacké ko ñepp waajal le 18 barke seigne Touba ki la ki moy gor waw seigne Moussa Ka neena joxal jaxala manding la dox ci gaaw deglu len rombu sara lion fanaan fa gaaw xey ba sarlong ba jàlli biri bi laaj sëriñ Touba wessu arabi dox meuna a jari grand leo wacc grand Popo fanan li kar Léo xëye romb kat di mbël ma di seen dunub tëbuk te naa làmbal ma xëy fa jëm Cameroun ñooñ kurmaana ak timilee ko górboo ñu néew maana mu romb leen tefe su jëm Besserwel yi laaj Serigne Touba ñu naan ko baafuli mu wër Grand Bassa bawoo Aboja tefesu weesu Abidjan wër suuf sa dox Akara tefesu weesu Wida laaj Serigne Touba ñu naan ko Winda mu war ca gaali géej yee jaar Legosa jaar ci réew ma ak kasaa kap koosa romb bata dem Douala laajte doomi doomi Astawaalo Porto Novo Cotonou Siti Kama romb na leen wàcc Gabon ñu naan comment <laughs> kii góor romb na leen wàcc Gabon ñu naan comment keroog la laaj Seex Bamba nam sa kayita mu naan ko wéy na ko nga naa la siita mu ne kookaa tabax taaxi Sëriñ Tuubaa fa mernan marnan mo rawon fa gaaya mu daldi di dem kable pisa laaj bamba kable pes por porjanti ñu nan ko yalla jang wi ma yomba parce que gabon dañu muju nan ki yalla la <laughs> motax suñu musa ko indi loolu ne wa gabon nga nan ko yalla ji fi newon ma nga ma nga ma yomba mu ne nak mu dem ma luango ba dem ma yomba fofu le modulo siare bamba señ mu lo dagana mi ki ki mouride yi war nañ ko delo njukkal motax ma ñaan wa port Dakar màggalu 11 novembre nañ ci nañ ci nañ nañ am ngont mun ko tuddee sëñ Modou Dagana yelloo na ko barke Seexul Xaddim maa ngi leen koy ñaan kii war nañ koo tuddee rue bu ñu xamoon li xew maa ngi koy demander le président Macky Sall son excellence nag ñu tuddeel sëñ Modou Lo Dagana benn monument fii ci Ndakaaru kii moo def lu kenn mësta def ci sénégalais jóge fii di dox ba Gabon dëkk bu mu dem day laaj ñu ne ko foo jëm mu ne Cheikh Ahmadou Bamba lay seet ñu ne ko ah kooku dafa am fu mu fi jaaroon na fi de wala mu wala mu laaj turam léeg-léeg mu dem ci ay nit du leen wóolu parce que buñ ko xamoon dañ koy dañ ko dañ koy yàqal yoonam muy fexe bañ tudd turu sëñ bi mun leen kooku fan la nekk dama ko doon dégg rek dem na ba yére yim sol daggatoo ci yaram wi mu ne gis sëñ tubaa mbaa faatu moo tax léeg ma gis gaa yi naan Barcelone mbaa Barsaq man leen nañ fay waa kër sëñ Modou Lo Dagana droit d'auteur kooku rek ni gis sëñ Tuubaa mbaa ma faatu a ngi <laughs> kii Ki ki ki mako fekkon jamono moy doon sama serigne barke Cheikhul Khadim barke borom Touba ndeysaan mu ñew Gabon ndeysaan fanan fanam sa kayita lolo mo ngi ci ñibbisi bi dina ko indi euh bala ma dugg ci serigne mourlo Dagana fi mu jaar da ngeen may indil euh së element euh, yi amone maa lambarna lambar ak serigne Moussa geey bu ndar Moussa war nañ ko baye xel indil mako ndax tay animation la tay bu kenn law tay tay tay yow mi xeyon liggey waro won sax xëy liggey barke cheikhul khadim ndaysan nañ dem xool bu fekkente ne pare na ñu indil ma élément Serigne Moussa Gueye bu Ndar serigne Moussa serigne Moustapha serigne Moustapha sek ak Mañaan ño nek ci technique bi ndaysan ñu indil mako ma wax len ni mu duggé ci gal gi ak bi mi fekk serigne Touba ba seex sëñ gaawaan ñëw ba serigne Touba wara ñibisi nak looloo tax tey ma commencé foofu wax ji ndax sëriñ bee dem indi sëriñ boo xam ne kenn amu ko gis nga pooru ndakaaru bii ndeysaan tudde nañ ko sax ay mool bi ñu ma déggee ba ama damay soo télé bi ma bi nañ ko tudde sëñ Touba tudde woon nañ ko sax ay niti mais gis nga sëriñ bi kenn kenn du ko booleel leneen kenn wooweewul loolu sax mool 1 la ñuy wax ba léegi ak mool 2 ndax sëñ Touba ko moom nañ dem seetaan bii dellu si fal gardiyaan ñay garde sëñ Moussa ne fal gardiyaan ñay garde digg lu wax la bés bu baax ko tabe ca gaal ga riiw ma naan la mi yennante di baal jamaan jaag jalaal diwur jummam jëf muy saf malaaka boole ko jamam jëf sandre masaam algardiyaan ñay garde digg bi jënti xaadi mel ni gaynde nee na keroog la waa li wii li yennante di baalu ak bàmba tey bi nee na keroog la waa ji sopp bàmba jébbalu naan ko bindal ma dénk yow mii sébbalu sax bàmba naan ko laa ilaha illa allahu muhammadun ilaahu mooy ngën gi lépp luy bawoo ciw làmmiñ saxoo sëriñ Moussa ne déglu ma wax la bés bu bàmba tabee ca gaal ga riiw ma naan ko yaraw labbe keroog jamaal jàggalaal jëwër jummam ja muy saf malaaka boole koog jomam ja sandarma saak alkaati ñay garde di ko bijjanti xaadi mel ni gaynde nee na keroog la waa Libreville yeddante di baalu ak Bàmba tey bijjanti nee na keroog la waa ji sopp Bàmba jibulu naan ma dénk yow mi sebulu sax Bàmba naa ko laa ilaha illa muhammadun arsalahu ilaahu mooy gën ñi lépp luy bawoo ci làmmiñ ndeysaan ndeysaan eh, sëriñ Moussa Gueye bu Ndar ndeysaan oh eh, tt ndeysaan sëñ mu dagana mi ngi jëlee kable pes gaal gi clandestin la fekk boobu sonn na xoole fi mu aw ma wax la ko léegi fu na jaar na fa sonn na loolu dagana dem na ba fur yi ndeysaan mu daal di dem nag ñu ne ko mu daal di dugg ci bato bi passagers yi war a wàcc Mayomba booba Mayomba ah, Mayomba amul port ba tey da ngay wàcc ca biir géej gi la bato bi di taxaw bato bu mag bi cargo yu mag yi fa la ñuy taxaw daal di jël gaal yu ndaw gaal yooyu nag ñooy dem wàcceek ñi nga xam ne ñoo bëgg a wàcc mais dañ leen di identifier mais comme identifier wuñ ko te yëg na ci biir gaal gi ñu ne. ahmadul xaddim fii dëkk bii ñuy jëm fii mooy Mayumba dëkk bii ñëw ñiy jëm di fa wàcc foofa la ñu bàyyi ki ñuy wax Cheikhul Xaddim Cheikh Ahmadou Ba mais nag ñii na ngi dund na ñi dundatul ndax at yi yëpp kenn déggu ko ba waxoon nañ ne Sëñ Tuubaa nekkatul jamono loolu bindoon nañ lettre maam Cerno Birahim miñ tudde tey Euh, euh, guddi ndakaaru yi euh, retour d'exil Sëñ Tuubaa bi màggalu port tey la waaye maam Cerno lañ ko tuddee ba ñu waxoon ko ko ba ba ba mu jëlee ci aal ju metti sax ndeysaan ak soxna Faati Isa na ko ko si jigéen yàgg naa doon jàmbaar barke Seexu Xaadim ci yoon wi ndeysaan waaye kii mooy maam Cheikh Anta maam Cerno Birahim lañ tuddee lañ tuddee lañ tuddee bis bi maam Cerno Birahim lañ tuddee bis bi kii mooy maam Cheikh kii nag moo teeru Sëñ Tuubaa ci port bi ci laa jëm si moo fekki woon tamit sëñ Touba Gabon ma ñaan ki nga ma woon léegi mooy maam Cheikh Anta waaye maam Thierno Ibrahim lañ tudde bisu ren bi moom mii nag mënoo wax histoire retour d'exil te boole woo ko ci parce que moo demoon Conakry ki Congo maami Serigne Babacar Mbacke Sadikho Moukabaro moo fi demoon Conakry ki kongo fekki Serigne Touba nee leen ma gongo suñu saaka ne ko yaa bari ay ndam te bari jaloore yaa dem ba romb géej gi romb tuuri ajaare ay borom wa ma say dom man si bamba samba yàqoo sam koom fop nga pavillon ba fa rasulullah indil sëriñ Tuubaa ndambul walay ya wara a sant ak yonen ba ngir fo taxaw rango bamba bamba takal na la médaille batine yudul tekke koti la da borom kun kokuy seigne gawan mom nga ma won sank ndeysaan seigne mou lo dagana def ay ay ay ay ay ay ay pexem ba wàcc maa yomb te warta wàcc mu daal di ñëw ci médecin bi ne ko man damaa tawat de mu ne ko tawat maanaam porté malaat <laughs> porte malaat xam naa léeg-léeg sax ma war a def émission porté malaat loolu suñ Modou Lo dëgg naa <laughs> laa ciy roy rek barke Seexul Xadiim porté malade jaral na ko ko bi mu ko waxee feebar bi ko dal médecin bi ne ko danga ma ko waroon a wax depuis démb daal di koy gindil boîte comprimé ne ko lii nag naan ci benn sax day ëpp damit bi rek doy na na ko waaye danga koy garder ndax bu la dalatee si sëñ mu lu daga na daal di wëlbatiku mëq boîte bi yëpp la mëq moom léegi saafara su jur jàngoro lay doon ndeysaan gémmiñ ngay fuur ñu waa gaal gi daw wër ko ne kii moom mënut a nekk ci gaal gi day dafiy jóge kii moom léegi mu noppal ñu ne kon léegi luy problème comme comme ñu gën a jege luy problème ñu ne comme fi ñu gën a jege mooy maayomba nañ ko fa wàcce xanaa lu mu bëggoon am na ko kon sëriñam baa ngi maayomba te mënta jàll ndax escale la bato bi di def am ñu war a wàcc te warta wàcc moom waaye problème bi mooy moom lañ gën a bëgg léegi mu wàcc maayomba mu daal di wàcc ndeysaan Cheikh Modou Lo ñu téy ko fofu ci ben poste de santé diko fa fajj diko defal ay soins bi tané rek ndeysaan euh dal dina médecin bi doma may ma génn doxantu xel man ngi ci sëriñ ba xet ga xej nako barke serigne touba doma may doma may ma génn doxantu ndeysaan waaw ki moy mam cierno Birahim damal daru borom bis bi tay borom ndombal bad ki nak mo demone keur gouverneur kii téye woon njabootu sëñ tubaa gi yokk yoon wi kii ya tax bi yoon bi sëñ tubaa ñibbisee ne ko cer na mun a mun a ko mun waxuma la yoon wi tas na mais yoon wi daa yokk ñi fi war a seex sax seexal na leen kii Cheikh Ibra Faati maam cerno ndeysaan bi sëñ Fall bi muy ñibbisi fekk na waa kër sëñ tubaa yëpp jàngal na leen bañ mokkal waaw waaye kenn du siñ daam waaye sëñ Modou na bi mu ñëwee ci loolu ndeysaan di wàcc di doxantu médecin bi ne ko nag bul sori de mu génn rek gis benn ëkk daal di ciy toog am ku ko romb rek nuyu ko ne ko salaamaaleykum mu tëb laxasu ko naa déggoo olof ndeysaan ne ko yow looy wër mu ne ko dafa am sama sëriñ bu ñu yóbbu woon exil man Sénégal laa dëkk kooku it ne man senegal laa dëkk kooku ne ko bu mën na but man maay Blaise Diagne muy Blaise Diagne man dem naa ba kër gi mu juddoo Gorée def naa fa reportage léegi rek bay su lay lii maa ngi koy ziar mi ngi naan ma war ngaa dellu si mane ko incha allah fan yii dinaa fa ñëwaat def si fa reportage maison des esclaves euh, porte arrêt sans retour ak sunu maam yi ni ñu leen daan ceenee nga xam ne jéng yooyu sëñ Tuubaa dagg waaye moo ko dagg moo ko dagg gars yi nangu leen nag waaw ki ki ki ki ki ki ki dagg say njoñ boo goree nag même boo ko santul ci kaw tamit noppil noppil mbéppee rek hmm? noppali voilà ndeysaan waaye li doy waar sëñ Modou Lo Dagana nuyoo Blaise Diagne mu ne ko man sama sëriñ lañ génne moom laa doon wër ne ko bisub tey bii ma la gisee laa génnoon Sénégal daaw wax ko fi mu aw wax naa la ko léegi Afrique centrale yëpp sëñ Modou Lo Dagana wër na ko doo ko dem Gabon parce que Gabon mooy mooy centre Afrique ndeysaan mu ne ko kuy sa sëriñ mu ne ko Cheikh du Bamba daal di jooy nag sëñ Modou Lo Dagana daal di jooy Moussa Ka wax na ko keroog la Mouhamadou Lo di bis bis yi jooy sëñ Moussa Ka wax na ko mun ne ko yow xam naa fa sa sëriñ nekk waaye nag Blaise Diagne dana ko benn fa mu ne ñemewu ma faa dem àll ba danger na beneen bi ci topp mooy moom ku mu woowut boo fa ñëwee ay xila lay daq sëriñ bi léeg-léeg da daan soxla boppam ba tubaab bi sax dañuy dañuy dañuy dañuy lewaayangu pour àgg ca moom du ko ñuy ñaaj tay la ko góor yëpp tey tey <laughs> tey barke sëñ Tuubaa te ku ko yëpp amoo jom ku ko yëpp amoo ngor waaw ndeysaan Blaise Diagne ne ko léegi teg maa yóbbu euh, sëñ Mourlo Dagana ne ko léegi nañ dem man boo ma mënee yóbbu mu ne ko àll bi dañoo tere woon sax ku fi dugg forêt classée la ndax rap yi gëna a danger ñu ngi ci man nak sa garantie wu ma damay sol sama tenue bu lay euh, ñi rondo all bi di ko buñu gisé ma and ak yow doon tak der duñ la wax dara mais nak attention damay dem ba joxoñ la mais sañu ma àgg gis nga mu ngi melni bu joggé fi Sodida dox nañ lu tollu ba padwa mu doko joxoñ boori ci aw xur ne ko foofa la ne ne ko nag boo boo génnaatee ma toogee ay temps génnoo damay xam ne rek faatu nga mais man maa ngi toog fii daal yor naa sama arme mais maa ngi toog fii di la xaar sëñ Modou Lo daga na pénétrer àll bi waaye koo koy góor waaye barke sa yàqul Xadim pénétrer àll bi di damm ay bant di jàll te Gabon àll boobu moo garaaw ay waay boobu àll gars yi dem leen Gabon ku dem ba ñëw noppi na ñi nga gis ñu yor ay làmmiñ ñu rëy yëpp kenn ku ne di wax jappé seigne tuba mag mu bax kessé da demut gabon rek waye ku dem ba ñew nopi ciowli ciowli demu ñu motax moo tax barke sëñ Tuubaa waaye lu doy war seigne mu lu dagana ndaysan dem ba sës ci géej gi gisul seigne bi yekati na ay tajwid alxuraan degul ko wax seigne bang ko jégué mais gisu ko mënu ko gis parce que bobu aw ëkk sax la ko ndax seigne bi lu wéx lay sol té mi ngi muju ñuul kukku ndax lënd yi ko takkat ak ak ak gunóor yi ko samak lépp sëñ Modou Lo Dagana di ko gis mais bi mu yëkkatee xas nag lam yabdu lam yabdu mislal Mustafa Muhammadi sihran wa jahran fil baraya samadi maddalana islaam wal kufra ma bi nasiyatil kulli sama yaqudu bi sayril batil man ataahu lillahi fi kulli sama di ko wax di ko wax di ko wax ba ci huwa nabi wa rasul wal xalil wax wal abibu bi mu ne wa imaamu bi sëñ bi ne wa dalil sëñ Modou Lo Dagana nee ne suuf si ma taxaw dafa yëngu gi yëngu wan ma ko foofu la foofu ngay wane la maa yomba foofu la parce que sëñ Tuubaa nee na nee na mu daal ne wuy sama sang baa ngi keroog la keroog la sëñ Mour lu dagana téye ko sëñ Tuubaa naan ko Ahmadou Lo am nga pëstéef ndeysaan am nga pëstéef Ahmadou Lo am nga pëstéef sa pëstéef bi rëy na de ndeysaan Mamadou Lo sa pëstéef bi rëy na <laughs> ndeysaan wax ah, sëñ Mour lu dagana ndeysaan sa bi rëy na de Mamadou Lo sa pëstéef bi rëy na de ndeysaan di ko ko wax rek muy rek di dindi lënd yi taq sëñ beeg ndeysaan daaj yi ne ci yiri yi ah mu ne ko waa fii neexut a ñëw ku la ne noo ngi fi mu ne ko ab soldaar bu ñuy wax Blaise Diagne dëkk Sénégal Mbàkke moo ma indi fii ndeysaan mu ne ko anamu mu ne ko bëgg na fee ñëw waaye ñemewute agsi ñu ko demal woo ko nu dimbali ko waaye lu jiitu loolu mu ne ko ana Seex Anta ana Faadal di laaj wa kër gi Cheikh Ibra ndeysaan ndeysaan de léegi mu ne ko lu dëkk ba def ana nok dongo ya ah bis wabu, bu ñëwaatul woon lepp échec ndeysaan bis bu mu demee woy Blaise yañ nak Blaise ñëw ram nuyu señ bi mu ne ko no tuddu mu ne ko Blaise yañ ana nu tuddu mu ne ko Blaise yañ motax fi ñu ko denc saa yu ma fa rombee dinaa ko xol ñaanal ko ndax mo yen won galga mooy premier député noir fii ku mës a falu sëñ Touba mu neex mu naqari sëriñ bi mooy fal Blaise Diagne xandi ndox la rootal sëñ Touba may ko encre sëñ bi dana ko loo dana ko loo bëgg sëñ bi ne ko këyit gu bindee mu dem indi gaalu këyit boole ci encre waaw moo tax sëñ Moussa Kane li tax mu wat carte yi ama bal sa si dafa liggéeyal ama Bamba ama jëy sa si Blaise Diagne le premier député noir jóge fa nag ndeysaan daal di ñëw sëñ bi daal di xool kayit yi muuñ ko loo bëgg booba Blaise bu nekk bu doon technicien la xamul ne àdduna day jeex bu ko ne woon yow mal xiyaam damaa bëgg mbàkke ku ma xeetool dem ajjana ji ngay dëkki da ko koy may ndax booba la ubbiku ci sëriñ bi booba yàlla moom lay déglu te moom moom rek lay déglu mu ne ko nit ku ñuul dañ ko yilif damaa bëgg a nit ñu weex ñi ñu ñuul ñi sëñ bi ne ko loolu palu àdduna kese la loo bëgg Je ne ko man sama bëgg la gis la bi bi ne la bi France ministre euh, député Afrique occidentale de la moom suis tirage dane moom leer ko ni mooy génn mooy génn parce que moo yenu woon gaal te la ñaanoon ñu daal di koy fal ministre des colonies Blaise Diagne ñëwaat participer ñu falaat ko muy député di ministre ku dëkk Afrique occidentale française Blaise Diagne mooy sa patron gaal ga na ba France de Gaulle dàq France da euh, Hitler dàq de Gaulle mu génn France Blaise Diagne mii dem France soixante douze heures Il nee nañ vingt heures mais 72 heures mu doon président France yili France mu ñëw fii ñu tëggal ko ay musique dóoral ko ay cléon cheikhul Khadim, waajaa ngoog ahmadou mi ci bari yi waajaa serigne cheikh rafal rafaal waajaa serigne serigne sëñ ma bànji ku ko liggéeyal da fay c'est si kharim daan na wax ne ku gis liñ koy defal di nga gis lim lay defal dal ne defar la man suñu serigne ñu ne defar la man mu ne wallahi defar la man motax fi seigne muntaka nek ku fi nekut ñun gisunu la ku fi yobut murit yi ñun deggunu la murid murit yi dañoo bëgg yek seigne bi waaw solo nañ ci nanggam nangam yoy yep indil nu ko nuy xam suñu jaamu yalla d'accord nañ mais buñu paré dañ koy jox seigne touba adiya seigne bi fi la murit yi ne kenn mënu leen fa jëlé wax ju bari jéek ngaw ngaw jéek nangam ak gaaruwaale di ci dugal say wax bëgg ñu gëm la kenn gëmul la Murid yi sering touba lañ gëm mo leen wan lu leen doy barke cheikhul khadi murid yi gëm serigne touba paré nañ paré nañ yowmal mal jot ñu xamni sawara lañ jëm paré nañ mais nañ gëm serigne touba rek nañ ko gëm rek ñun luñ ci fekk doy na demal sawara sax na doon digelu serigne bi rek voilà c'est tout na doon and ak serigne bi luñ ci fekk xolal dina jox léegi ma ñaan ben ben ben ki waji dafa ne alhamdulillahi ndaysan mbake mbake buma neex ngok ngoog nañ koy deglu tur wi lay fatte alhamdulillahi man donna naa bu deugal luy dal ku and ak Serigne Touba euleuk nama dal de nga li wax ay ah, nama dal dina ko envoyer ma ñaan mu gis ko mais lima leen indil mooy sëñ Modou Lo Dagana war faa jóge nag war a woo si maam Cheikh Anta nag war a woo si nag Cheikh Sidi Muxtaar mu ne ko ana ana boo demee neel Cheikh Anta na ma fekk na na ma fekk feneen ndax nattu bi jeex na fii ndeysaan fekk na Blaise Diagne rootal na ko xandi ndox waaw d'accord waaye fal na ko moo tax sëñ mu saaka ba muy koy ba mu koy martial dana Blaise ci mu jéem gi laa bàyyee dunya munu maa wor danaa ko wor bala maa wor bërki démb la jël Blaise mi fi nekkoon député réew mi war ko war ña ko daan dar te da daan fal di folli ku ko neexul di commandant di chef di maire di borom ndar li mu am benn nit ku ñuul mësu koo am di ci nguurug français kat moo amee tiitër yaari yoon yi mu wàcce ndakaaru mat la waaroo ci képp kuy waar ci biir wala yoon jëmmi buuru tugal la fi accès du ku nuy woowee ci français ministre naka mu jub ndakaaru seen kënu yuy dal kele ya ak musique yaa ki tambour keroog gouverneur ci xaadam ya la bokkoon sañu matu koo yedd da koo bind leetar général yi daal di wëq quartier yi jiital di ko maajal di leen commandé ma ngay ser muy taxaw kemm di commandé ci deuxième nekk ci kaw naaru góor yeewu dis gor officier caporal keroog OCDER seen classé ak mesure yi ñëpp ko suivre ma nga naan l'arme sur l'épaule gardez-vous couché en avant marche bi ko ñaareel dëmmam de kenn mënu koo gis dañu ko dugal ci biir wagon wunu kaadar ñii ne wopp na ñii ne dee ñu ne du ko wopp kat dañuy politique far lolo Blaise Diagne lañ ko martial nga xamantene ne la ca gëna neex mooy àdduna ku ak moom ku dul sëriñ ba fa Touba dana la nërmeel boobe la sëriñ mooy mbër barke sëñ Touba léegi nag ñu dem sëñ gaawaan nag moo war a dem seeti sëñ Touba sëñ Mourlo daga na ñibbisi na mu ne ko sa mag jënee na nga fekk ko gabam Mourlo da ngaa ñëw yow sara xaloon nan la mu ne ko mbàkke ñëw gisna gis naa sa mag ja sëñ gaawaan lu mu wax mu ne ko ah nee na nga ñëw de ndax na ma ko gisee narta ñibbi si senegal sëñ Tuubaa narutoon a ñëw sëñ gaawaan daal ne bu ma rusut woon sunu borom suuf si du ma ko laalaat ba Gabon sëñ Moodu Njaay Jóob ne ciy pexe <laughs> ndeysaan yoonu méttee ngoog encore ndeysaan waaw tegal ma kii nga dégg li mu wax déglul ndeem doon naa murit bu dëggal luy dal ku ànd ak Serigne Touba ëllëg na ma dal képp ku gis kii ma gis di dem di seeti keneen demal ma dem ba ma fi lii rekk a dal sama xel saak dund moo ma ci doy suul dëdd moo fa doy bisu wuññeente ba Touba rekk a dal sama xel amaana kuy daw di wéy di seet keneen ku ko doy te fekk waa jëmu jëm dem lee ëllëg du ko tal sëñ Mañaan maa ngi toll ci maam si xanta waaye indil ma sëñ Abdou Samad moom sëñ Soyibu am na lum ñu indil ci retour d'exil sëñ Touba non xaaral xaaral xaaral xaaral tuuti maam si xanta bi mu seetee sëñ Touba bi mu koy seeti sëñ Modou Lo Dagana ko jël si moo tax sëñ Moussa Ka daal di ne Ahmadou Ndiaye Diop daan na boot njool Anta di dugg ca dex ya ñu mel ni jant sëñ Modou Ndiaye Diop maa ngi ziar waa këram bu baax a baax. sëñ Ahmadou Ndiaye soxna Anta waa kër ga yëpp ak xalifa ba ndeysaan Ahmadou Ndiaye Diop daan na boot njool Anta di dugg ca gaal ya ñu mel ni jant daan na ko boot di xuus ca dex ya ak mar ya di jàll dex ya ba jàll dunya daal ne sëñ gaawaan daan na gis nit ñu ñàng ñoo xam ne dañuy lekk nit sax mooy xeeti ninki nànka ya fa kuy ya ñoo daan def taati neen di yap nit ñi ke la ko sëñ Moussa Ka bindee ñu ne ko ñan la mu ne jaaxonke ak jalonke ak tandunke koñaajo ak balonke ak xaasonke ñoo daan dogalé seex anta rewi galwa te ko dara dara dara ca galwa galwa moy lambar na fa la ko fekki won waye bi ñewé fekki ko fa ndaysan fofu metti na fofu tam metti na may lambar na fa la ko fekkon kunyul kuñu kuñu gis bobu mam cheikh amta ndaysan ci si sega dem na ba yere ya yére ya dem na ba soppiku mu gis seigne touba rek seigne gawan ci noblesse sam gabon gama gis mam Cheikh amta nek fa ay fan di wër seigne touba mënu ko gis ben garde moniko dafa melni da nga am koy set ndax waxtu wi fan yee rombu gisoon na la ngeen di wër mu ne ko nun serigne monu reer fi ko indi lan wax muné ko numu tuddu muné ko Cheikh amadou Bamba xam nga tay bu fekkonté né seigne Modou Dagana mim andal a seigne sëñ Modou job bu don làmbar na maa yomba la seigne Modou Dagana na xam fan la mais seigne Modou Dagana bi mi jóge fo fekk nañu déplacer seigne bi lolo doy war fekk nañu déplacer ko mhm. motax nak xamatuñ fan la waye dañu tom yag rek mun len neeg be dal gis na ku fa daan nek waye nekatu fa bu teju te bir gisatuma fi ndax ci ndox mi lay tank wan ma ma làmbar na ma wan la làmbar na ah dafa mel ni am na kuy dugg téléphone maaleykum salaam. waaw Cheikh mi ngi ziar. waaw kooku. maam Maram Diop. maam Maram. waaw ñu ngi ziar. ñu ngi lay ziar Diop. yitte yi. di bëgg sëñ Tuubaa lool. waaw ñu ngi kontaan ci bi baax a baax. jërëjëf Diop. ñu ngi woote si dëkk bu naan Bayti Xaaxaam. dund Xaaxaam. Bayti Xaaxaam Diop. bayti xaaxaam fan la nekk ci ban région. région Louga département Kébémer arrondissement Sagat Guère. waaw góor. Sarkal. ndeysaan. li ngay def am na solo de. bis bi loo ci yëpp tey la sëñ Tuubaa ñibbi si woon. wallaay ndeysaan kontaan nañ ci lool. ndeysaan. Touba TV moom mooy yàlla ñun murid yi. ndeysaan. ba tax na lépp lu fi jaar rek dañ koy teewlu bu baax a baax. leen góor. waaw ah, ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. alhamdulilah. tabarkàlla di nuyu sama mbokk yi lay yi lay seetaan yëpp. ndeysaan. ku ci man la Serigne Cheikh Diagne ñu koy nuyu bu baax di ko ziare. Mhm. di ziare mbokk yi mbokk nekk foofu yëpp rek. waaw waaw waaw waaw. di ziare képp koo xamante ne yaa ngi bëgg émission bi yaa ngi koy seetaan ñu la koy ñu ngi la ciy ziare bu baax a baax. ndeysaan ndeysaan. waaw waaw kon baax jërëjëf dañoo bëggoon eh, a dugg tësal sunu sunu kii rek ci ci bis bi. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf waaw. jërëjëf téyel ma tuuti téléphone maa ngi koy ziar ak waa dëkk ba mu dëkk yépp maa ngi leen di ziar bu baax a baax. ci barke Cheikh Khadim bayti xaaxaam bayti xaaxaam Diop maa ngi ma ne wala bay bay di xaaxaam fi ñu am jóg xam na ko ñëwoon na fi de ak suñu gànna mesere am dafa sot fu ne lay def ñëwoon na fi ñëwoon na fi bi il est grave ce gars là suñ xeeru suñ xeeru jumaa yi ndeysaan ndeysaan kon de teewal nanu suñu ab suñu abdu samat moo fi indi woon ndeysaan moom sëriñ sony bu waaw waaw moom laa lay bëgg a moom laa lay bëgg a tegal nii sax daam euh, kii euh, maa ngi naan sëñ daam xam nga ni moom c'est toujours euh, émission bi noo koy ànd waaye sëñ ma ñaanaf nekk ci technique bi Euh, tegal mako wa koy sëñ bi jërëjëf contane nan jërëjëf sëñ dam euh, deb euh, sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ ma ñaan indil ma sëñ Abdou Samad mu relateel nu yoonu geej gi ñu doog ñew nak ci mam Cheikh Anta ak sëñ Touba ñibbi ci Dakar dañu wax la bés bu Bamba tabee ca gaal ga riiw ma naan ko yaraw labbe alaykum sama bokk talibi mouride yi ak mbolem julit yi nga xamne ñi ngi bëgge mbirum sëriñ bi maa ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci bis bu bi di onze novembre tolloo woon ak onze novembre mille neuf di onze novembre ci le sëriñ bi wàcce woon ci bato bi jóge ci géej gi egsi ci Ndakaaru nga xam ne ci onze novembre bi la bato bi costé ñu yëgal mboolem notable ci dakaro nday ji réew yi jaraaf yi élimaan yi an boolem kilifa yi diine yi fi ne yépp ak seex yoonu murit kenn desut taali bi yépp ñu ñëw ci bato bi ngir gàttalu si sëriñ bi booba nag mësuñoo gis ku tubaab yóbbu mu dél si waat ci moom la jëkkee ba tax na am na ñoo xam ne dañ doon fernance ba xam li ñuy wax dëgg la walla de am ñoo xam ne bi sëñ bi ne tël dañoo kiris am ñoo xam ne dañoo sar xolle am ñoo xam ne dañoo yuux xeetu nit wu ne gis nga ko fa keroog ñii di daanu di xallaañu ñii di sar le ñii bëj di muuñ ñii di jooy lépp ngir sëriñ bi jaaxal leen ndax li ñuy wax lépp dañoo ne rek dañuy nax nit ñi waaye sëñ bi mënta ñawaat waye bi ubbe bato bi tuba bi njëkk a dañ na ana Sidil muxtar saxante ne maa ngi nii ñëw ñëwal wuy seen kon mel na tuba bi ñoo doon bëkk néegam mu dugg na ski ci ñu Cheikh Ibra ñom ñaar ñoo ñi nak bi Cheikh ant nuyo serigne bi mu wolo ko Cheikh Ibra mu ñëw mel na ba muy dem Cheikh Ibra mujj ci loxol serigne bi moko mujj nuyu bi mi ñib ci Cheikh ant moko ko nuyu Cheikh Ibra top ci. sëñ bi nañ ma wàcceel sama gaal yi liggéey bi ma liggéeyal yónent bi bala maa wàcc day wàcc ñu di roñ sëñ seexanta ak seex Ibra di ko roñ di ko wàcc ma bari lool lépp fees dell ci mbindum loxoom sëriñ bi lépp di tagg yónent ak julli ci moom ak bak yàlla ak kañ ko ak màggal ko ak nettali ko yàlla defal ak sant ko ca yéesuwul lool liggéey boobu nag bari gi tax na. roñ bi yag lool Cheikh Anta ak Cheikh Ibra kep di ko roñ bam de dee ba nar leen a te nanguwut a wàcc te tuba bi yakamti nañ wacc ñu mujj tuba bi and ci di ko roñ rek ñu di ko roñ di ko roñ ba lepp wacc mam Cheikh ak mam Cheikh Ibra ñom ñëpp ñew ne ko lepp wacc na fi suuf dara setu mu ne kon bismillah bi mu ba ñepp gisse ndoko nak ci la ci la loolu yi xew ñi di joy ñi di sar xol ñi di yoxu ba mu nuyoo ñëpp nag ba mu dal mu ne asalaamaaleykum ñëpp ne waaleykum salaam mbooloo mi riir ba dal mu yëkkati loxoom bu tedd ba loxoom day joram ba tàllal ko daane waaw kay damaa di damaa demoon liggéey li yonent bi sallallahu rek waaye ñibbisi naa ci tukki bi lépp lu ngeen gisee ci sama gannaaw nag na ngeen xam ne sarice bi loxo bu sew bi moo ko liggéey kon nag bis bii bis bu ñu war a fàttaliku la xam ne lu nu am sëriñ bee lu am ci jàmm ci senegal ji te batal a julli batal a woor sëriñ bi ko liggéeyal te budutoon looloo loolu Cheikh Moussa Ka waxoon ne budul kon budul kon ak dem gii wala nasraanu te kon billaahi ñëpp dem niiraan kon kenn kenn mënta fay sëriñ bi moo nu ko liggéeyal te kenn bettaliwu ko kooku doon wax amin bu ñaan sax newu fa kenn jàppaliwu ko ci dara mën na ca liggéey ko comme sell teg ko ci suñuy loxo ñu di ko jëriñoo kon yalla nañu ko yàlla fayal mom rek rek mo am ak pay yalla nañu ko yàlla fayal lu kay wëjortam di wëy di ko fay ba aljana di wëy di ko fay ba faww dañ sax ci ak bëggum te doon ay taalibeem yum nangu suñu talibé jërë gën jëf lo rek la doon fatali ko 11 novembre 1902 kullu amin wa antum bi khair keroog jamaa jàggala Sëriñ Moussa ne ndeysaan Mbacke jërëjëf jërëjëf Mbacke maa ngi ciy siyaar mboolem sëti sëñ Tuubaa yëpp yëpp rek bàyyiwuma kenn ndeysaan ndax xam naa ne am na lu njëkk tey am na lu njëkk tey mhm. am na lu njëkk ndax sama téléphone baa ngi nii ku ne message yeeg ñëpp rek ñiy siyaar rek ñëpp maa ngi leen di dinaa leen tudd xam naa ci kanam waaye ndeysaan keroog bi ko maam Cheikh Anta fekkee foofu nga xam ne soldaar si dañoo dem ba koy saboté comme génnatul ci néeg ba mu nekkoon sëñ Modou Ndiaye Diop sax moo ni sëñ gaawaan mu ne ko daa mel ni li kiy wax ne fee lay nekk Mbàkke dafa mel ni dégg yi ma gis lii ci taq nii ay cati cati mbubb la maanaam nga xam ne mbubb yi muy dégg yi muy riisu ñoo dem ba taq ci eh, perkaal bi foofu bi mu waxee loolu sëñ gaawaan daal di ne ko kon nan xool waaye biñ jubee néeg bi mënuñoo si ndax xet goo xam ne soldaar si lu lu nu bonle rek foofu lañ koy def loo xam ne kenn mënu koo xam ndax saboté ko sëñ gawan dal di tak ndiggam sëñ Modou ndjay Diop ñu dal di gas am leñ biñ ko gasee ba mu xoot ñu dal di koy duggal eh, jël la salté lepp duggal ci biir am si dem uti ay biteelu ay ay ay ay ay ay biteelu lecc ko lañ yo xamni ni ko mëna soti fofu biñ ko défé ba nonu ba nopi nak sëñ gaawaan doog a dem ca port ba sëñ Muudu Njaay Jóob ak sëñ Dagana féete ko ginnaaw bi mu yëgloo ne salaamaaleykum baa ngay riir ca biir mu salaam maam Seex dafa tàppe cadre bi fekki ko ci biir da koo fekk si keroog sëñ Muudu Njaay nee na sëriñ bi ku ne xam na ni nuyoo la baaxoon waaye moog sëñ gaawaan danoo tafante ay ay ay ay yaa ngi rek sëñ gaawaan di jooy nag melokan mom ko fekke la melokan te seigne touba ngi tàmbali di yeureum mam cheikh Anta moom mi ngi koy yeureum da xamna na ci nim programmer seigne gawan mom moko programmer ko ci noble njoowaan nguru man ki ziar sëñ amsatu borom njoowaan gi sëñ amsatu yonent yalla sulaymana momon njoowaan rafatale nañ ko c'est tout ngi koy ziar bax bax baax nga gis ne euh, sëñ gaawaan ma ngay joy rek di tour xewal rek maam Cheikh di tuur xéewal rek ndeysaan am lu ko naqari lool maa ngi ko Cheikh yonent bee ma ni woon di nga ñëw ndeysaan yonent bee ma ko wax waaye Cheikh dalal dellu fii mënoo fee ne fii neexut nekk <laughs> xoolal loolu moom maam fan ya fa sëñ gaawaan ne rek ma ngay ñeewante sëñ gaawaan mu ne ko waaw waaye man bañu maa dellu waaye nag yow nooy def tee ñibbi si Mbàkke di wax ak moom nag mun ne ko seex mu ne mu ne ko fii maa fi njëkk wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah seex mu ne ko Mbàkke mu ne ko gabon gi maa fi njëkk jaamu yàlla gabon maa fi njëkk tudd sunu borom di ko limal di ko limal di ko limal lu ne mu ne ko maa ko fi njëkk def ba tax na suuf si sax may xamal ni suma delloo moom day day day wéet lool ba tax na ginnaaw barab barab rek la ma ma far fi des yow nga dellu li ma liggéey lépp ma jox la ko muy baatin boo xam ni ak lu yàlla yoroon ndax foofa Serigne Moussa Ka nee na la njool Màkka jox na ko mbooleem yool ya ñuy aji umra jaari kër rasuul yi nafaani naafixu fi limbal wér yi bi maa bihi yabitu ni kulawul yi yàlla may na ko foofu loo xamante ne jommal na bépp wàllu galbaa nag la ko fekk mooy galwaaya mooy lambar na mooy galwaaya foofu la waxee ne lillahi xat wasaltu inda galwa wasanani ama yo juri balwa foofu la ko waxee mhm. ndeysaan dem naa fa dem naa fa ndeysaan namm naa ko namm naa ko damay dellu Gabon ah barke Cheikhul Khadim ndeysaan sëñ Ablaye Tage mii doom ji ndeysaan wàcc liggéey nee woon na ma maag sëñ Jili Ñang foog foog ñu ànd Gabon foog ñu dem ma xool ma ne ko sëñ boo fa demee gëmaat sëñ geneen gëm billahi fi mu ne fu waay ci gem yow ya ko xam boo delloo gaboo mu yok man ma mor mako wax barke seigne touba waaw ndax luma luma mos la ba nopi bo ba mayum ba te nak bo gabon bul dem gabon dem gabon taxuta dem gabon dekete mën nga dem ba gabon te eggo gabon yi seigne touba gabon yi seigne touba moy mayum ba barke seigne touba mu daal di and ak mom nak di mu ne ko mbàkke doo ñëw mu ko duma dellu si mu ko kon na nga xamni dinañ la la jor sa mbokk manu ray fi birki dembu tubab yaan koy damo ci France muy mouri Touré nekkon guiné ku nu mësa ray ñing koy damo mbacke té bo fi déssé da dan yow desoo fi sa sago ñoo fi fat lool la ñuy wax mbacke da nga bëgg ñu yemale la ak ñoño ndaysan Dagana dërëm xam nga seigne mourlo Dagana ci ñi topatu seigne Tuubaa mu ñew ci la bokk mais loolu dafa gudd waaye li doy waar mu ne ko seex ma laaj sama borom loolu nag dootoo ko dégg jubo naa ceeg sama borom sama borom nee na ma ma wax ak sama borom jeex na kenn ko daan wax léegi nag ma wax ak sëñ Tuubaa mun naa ne ma wax ak sama borom kenn ko daan wax juboo naa ceeg moom na jaay alxuraan yem ci wala yoddu ilaa daaru salaam rek xool ko ne seex mu ne mun ne ko sa borom bik na nee na juboo naa yow yow la sa borom àndal sama sama ëmb yii ma takk su ma ko tekkee daaru salaam la maam si anta ne ko nag ginnaaw da ngay ñibbi si bàyyil ma yóbbu li ci ëpp moo tax sëriñ bi bi muy ñëw indi nay gaal mais gaal ya ci ëpp maam Cheikh Anta ak sëñ Modou Ndiaye ñoo ko dugal ci ay cargo ñu ñëw mu mu jiitu ko senegal mooy téere yam jëloon mooli ko téere yi maam Cheikh Anta ko mooli woon Maroc yooyu amoon na ci ndigalam waaw histoire laa leen di wax de barke Seexul Xaddim fi ne bu doon ay tasawuf la ñuy waxtaane fii ak yooyu xam nga ni sëñ Jibi Ndaw du ne ma demal waay ñoom sëñ Xaadim Njaay la ñuy teg fii ak ñoom mais géej gi maam Mor Mbaay yoonu géej gi tey moo toog tey dama am lu ma yëg tey damaa tàng barke Seexul Xaddim tey damaa yëg damaa yëg sëñ Tuubaa tey lool te dinaa ubbi téléphone bi léegi ñu ànd ci gis nga bi mu waree dugg bato bi ko indi bato bi mu ngi tudd ville de Mazio ruksu mi dawalon bato bi yóbbu seigne touba mo dawalat bato bi indi sëriñ bi muy takki bagasam touba bi di ko re nan ko lan la momit mu len di re neena touba bi nan ko lan la mu len damay delu senegal yalla neena damay delu sama borom xamal na ma ni damay delu touba bi di ko re nan ki mission am jeexagul mu nan day dellu ndekete ñoom xamuñu ne bagage yi sëñ bi sax ñom ñoko yenu bi neena lol la len don ndaysan mom la seigne Moussa ba Abdoulaye delo dim konakiri. maam Cerno jox ko addiyaam ak a bari booleeg mbindam taaw ba am di Moustapha Seex Bamba yër ko muuñ ne Cerno xatwa fa keroog la ne Abdoulaye Ndour billaay bisimilaay jóg naa yàlla mooy buur demal ca gaali géej ja tànn ful ko ca mooma at la doola àggal ful ko mu fekk fa manduwaar gu taaru mooy paquet dulo koom ga ñuul biir ba weex maaw ya bulo mu ñëw ne ko tànn naa gaal mu ne ko yàlla tànnal na ma gaal ñu daal di jël yére sëriñ bi boole yóbbu ca waax ba labba yaa ngay xoolee tubaab ya e terel kerok, ay mandoir yu taru, yo ya yooya gaal yëpp France la wa France da teru moy dem France ak fanu nan pasteru mba gal ga tuddu wil di ak Canada ño daan jógee dakaru jëm Cabinda paquet dulo dragabon yëpp a ngi teer yi mandoir yu ñu am yu doy war wil di marinaaw lañ da wax artusa mo daan duggal ñi aji lajal musa ginau ga lañ liggéey lu gal gu taru resilio le tuddu moy muxtaru ma wax la ba bamba tàbbee ca gal ga indil ma lolou bu fekente ne nii ngeen ko seigne Moussa Gueye euh, seigne Moussa Gueye bu ndar lan lan ci wax ma wax la ba bamba tàbbee ca gal ga réew ma nan ko raw nga làbbe jalal ja boba làbbe rek la gaa la gaa ragal raw nga làbbe jalal ja ak jamaal je wër jëmum je muy saf malaka bolé ko jomam ja waw lan la ci seigne Moussa Ka tek mu tal di tan wil di mas yang fasasa, quartier ya fat bagaase lambi saasa seex bamba duguna bisub alarba xëye limbal wëri alak na barba géej gi di bëx bëxi di fuur di duusu jinne ya jébbalu woon di ser di buusu doj ya ak garab ya naan ko noo seere yowmal xiyaamati mahal bohoori njol màkk na ko médaille yi baatin yu dul tekkee kooti burum kun ritwaanu naan ko moom nga tey jinaana maaliku naan ko doo xalxu niiraana badar ya dar ko muy bandaanu leeram nga jolli na ba sar ndakaaru kon nan ma indil loolu nu déglu ko ma doog a ñëwaat fii ma doog a def poos tuuti naan café dellu siwaat ci ci ci indil ma ko indil ma loolu ndeysaan bambartaɓe caggalɓe riwma nan ko yaraw labbe kelo jamal jaggalal jewor jummam ja muy saf malaka boole koog jomam ja sandre masak alkati yaag ñay garde di ko bijanti xaadim mel ni gaynde nee na keroog la waa Libreville yendante di baalu ak bàmba tey bi jëti nee na keroog la waa ji sopp bàmba ji bulu naan ko bindal ma dénk yow mi si bulu sax bàmba naa ko laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahul ilahu mooy ngën ñi lépp luy bawoo ciw la miñ saxoo ga sàmm saw cër ak saw gémmiñ juróomi woy yi la ko Bàmba dinkoon xamal ko maanaama be faf ka dànku fa kulu si tooji li xayri man lahul lumuuru wal fi'aal wa zaman fa laysa saata waji in li faayida wa nafso li baabi naarin xaayida wa man tawaaji wa looli xayri ma أتى بمن سبا مكرما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أبد أولا فأبدا لا يتوي خير الندم يبو بناري وصلت الخدم sëriñ Moussa ne yooyu bay la Bàmba tàggoog réew ma tabi ca gaal mool ba naa koy joow ma Cheikh Bàmba tànn welli mention fa saasa quartier ga fat bega laami saasa sëñ Moussa ne xaadim dugg na keroog bisu alarba xëye li bar wiil alag na bar ba nee na keroog su fas gabang sa joy na ndax jaamu yàlla ga mu daan am jeex na di bax baki di fur, di dusu, jinne ye jebulu di ser di busu do jaag garab ya naaka noora yi ya seere yom boori njal ma rang ko mi daayi baatin yu dootul tekkiku la daa borom kun gaayi badar ya daar ko muy bandaaru leerami jolli na basar nakaaru ridwaanu naan ko moom tey jinaana maaliku naa ko doo xaraf niiraana moo yaari bi ya bamba wax aljanaak sawara noo gëm bamba ila nabi وجدت ما قد فتى باب الجنان وإلينا فتى إلى النبي وجدت ما قد أغلق باب جانما وإلينا خلق قال قد الدو مسن بفهم دي سبال نان سبحانه بما برام الأول سخر قيان دو دو فنان قبل بسا خيف الخبز جنون يوم بسا للمنتقى wajadu fi kabla bisa maaxir kafaan yi aduyulu bisa mu ñëw gabon fanaan fa naam sa kayta yandu fa réew mippa naa uddiita réew di sargal bamba naa ko marhaba ahlan wa sahlan yaay boroome martaba foofa la bamba gisee junniy seq ak tëng yi mësi mësi mel ni soq sëriñ Musaa ne foofe la bàmba gisee junney seq ak tëng yu mës mësi mel ni soq mu laajte ñu naa ko mooy ginaar gi làq fi sa ginaaw ba nga fi jaaree yàlla xewoon boobu ba tey waa ju ci yàpp faatu moo tax ñu giir xër baaxile yaatu seex bàmba naa leen ak saa yekkoon murid yi ñooy saadi xub may maamoon sëñ Musaa ne bisu la ñaga caam ma ca Gabon jébbalu joxe ñetti téeméer yu ma soxnaam su mag dolli ci ñaari téeméer ku tudd maar njaay joxe ñetti téeméer ku tudd laamin jóob tafa barke rasulaay waay waay bàyyil mu dem bàyyil mu dem ku tudd maar njaay joxe ñetti téeméer ku tudd laamin jóob joxe fa téeméer ca mu dellu si tafal ca fanweer waaye bàyyil mu dem ma ñaan ma ñaan bàyyil loolu dem barke sëñ Tuubaa murid yaa ngi dund sëñ Tuubaa pour le moment barke Seexul Xadiim wala ubbil ma téléphone bi tuuti ubil ma téléphone bi euh, ubbil ma téléphone bi ma ànd koog taalibe Serigne Touba yi maam Balla ñu ngi koy ziar baax baax euh, Daaru Salaam asalaamaaleykum. waaleykum murit boobu. waaw. waaw waaw kooku. suñ seex na def def ndeysaan ndoo yëg tey tey la sunu waa ji wàccoon ci port bi xol ba fees ndeysaan dell jar na ko waaw xol ba fees dellu dellu daal wax dëgg si am seen xol yëpp tooy ko mën a fay kenn mënu ko fay kenn mënu ko fay yëg ne naar bee indi xorom si rek yëg ni naar bi fii ndi xorom si rek. billahi billahi ndeysaan. ah ñu ngi bu baax baax ñu ngi sant bu baax a baax a baax. alhamdulilah alhamdulilah. tey ñaanal suñu Muntaxa Mbàkke ma yàgg fi loolu ànd ak wér. ndeysaan ndeysaan. tey rafetlu kàddu gi yëpp nag. jërëjëf jërëjëf. ñi nga wote ah, Njib Ñas. fan ci. ndib ñass ndib ndib ñass waaw. mom ci région ban la ne. ci région Louga la nekk. région de Louga section Louga waaw leen góor waa Louga département Kébémer noo ngi siyaar waa ñomre yi bu baax a baax waaw waaw bu subaa Moustapha Kane fa la jëm moo tax xam ngeen waaw ñu ngi siyaar sëñ maam sëñ maam Maram Diop mi doon woote léegi naa sëñ maam Maram waaw waaw waaw ngi koy baax rek xol nañu waaw defal amin barke Cheikh Khadim jërëjëf jërëjëf ndeysaan noo ngi koy siyaar bu baax a baax waa Njib Ñas ñëpp rek ak région de Louga sëti sëñ Tuubaa yu jigéen ñëpp maa ngi leen di siyaar la ko dala ci sëti doomi Seex Mustafaa yi euh, waa kër Seex Moodu Mustafaa ba ci Seex Murtada waa kër euh, soxna Faati Ja Mbàkke ba ci soxna May Mbàkke ak Seex si Daaru Salaam kër sëñ Gaawaan ku mu jigéene ñëpp rek képp ku kuy sëtub sëñ Touba sëtub Cheikh seer na la ndax ñoom émission bi saa su ne ñu may won seen seen seen seen seen seen seen seen yëg ci émission bi soxna maam Xadim Mbàkke moom Cheikh Mouhamadou Mourtada na nga koy ziar soxna Bali Mbàkke moom Cheikh Muntaqa na nga koy ziar bu baax a baax noo ngi ziar bu wér itam mbooleem ñi nga xam ne euh, Touba gépp ma kenn ndax maa ngi jot message yi kenn ku nekk di wane sa cofeel ci sëñ Touba tey ngaa continuer loolu li nga loolu damaa bëgg tey ñu déglu ñu déglu ñibbisi gi ñu déglu ñibbisi gi moom laa bëgg ñu déglu ko euh, continuer ko foofu nga ko téye rek euh, noonu nga koy téye téye ndeysaan waaye yaa ma nga woon ca bàyyi nam sa kay te joxe na ñaari téeméer ka du Maar Njaay joxe fa téeméer ka du Lamine Diop joxe ndeysaan ñu jébbaluwaat réew ma doog a far buur ñu jox ko fa gaalu cooke boole yére ya boole ca wëli si der mu def ca téere ya limal Souleymane Konté ak Bande Touré Bismillah. bisimilah. salaamaaleykum. Wa alaikum salam. salam mbacké Lamine Sey. kooku. Lamine Sey. Seigne Lamine Seye. Touba Madison New York. ah eh, Touba laay waxee eh, Touba laay Seigne Lamine ñu lay ziar bax yalla na yàlla de New York. ñanga les ko. lay ziar bax yow bu baax a baax rek. jërëjëf jërëjëf. xam ci bi mom bu ko tay am nga dimbalul yàlla loo xamante ni day maanaam bu la sëñ Tuubaa xëyee. ndeysaan. sama xol dafa dafa sori. waaw jar na ko. dem ba tey maa ngi teewlu dem jéem na maa jéem a dugg mun maa dugg. bi sëñ Ami doon doon kii. sëñ Ami doon dugg naa jéem naa ba sonn. dëgg la dëgg la. waaw waaye xam naa ne moom rajo bi daal télé bi daal wax dëgg yàlla. waaw mhm. yàlla leen sëñ bi defal ko seen yoon. allahumma amin allahumma amin amin sama xol dafa sori nag maanaam mhm. li ma bëgg wax lépp mun ma ko wax ndeysaan jërëjëf waaye sëñ bi sëñ bi de jërëjëf jërëjëf waaw sëñ tubaab ndeysaan waaw maanaam sëñ bay sëñ bi daal daal foofu mu ne kenn ku ne yaa xam nag maanaam mhm. sëñ bi fi mu la toll ndeysaan allo waaw maa ngi lay dégg bu baax a baax baax na jërëjëf moom daal foofu mu ne mhm. sama xol dafa sori bu baax a baax a baax jar na ko def na ko ndeysaan ñu ngi siyaare mboolem ku teew mboolem kuy teewlu ah. yàlla na yàlla wala leen ci jàmm jërëjëf sëy jërëjëf naa la siyaare incha allah incha allah yàlla na jërëjëf jërëjëf ndeysaan sama màggal moom waaye bala maa dem dinaa jàkkaarloo yow waaw kay incha allah incha allah moo ko bëgg rek jërëjëf sëy jërëjëf sëñ Lamine Seye ñoo ngi koy ziar ziar waa bitim réew ñëpp rek eh, di ko teg ci loxoom jàllale ko ci sëñ Sidi Ndiaye sëñ Sidi Ndiaye moom woo na ma léegi waaye xam nga moom <laughs> moom moom moom daa gaaw a yëg bi moo te it eh, ndeysaan noonu rek la sëñ jëmooy kan maa ngi koy ziar baax Touba moom daanaka mooy superviser samay émission moog sëñ Abdoulaye Diouf ñoo ngi koy ziar bu baax a baax jàmbaari sëñ Touba yooyu sëñ laat Diouf moom sëñ du Mamoun moom sëñ Modou Rokhaya sëñ fàllu Galas moom sëñ Modou Roqee noo ngi koy ziar bu baax sëñ Galas Mbàkke bisimilah bisimilah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ Mamour. Mbàkke. boobu. ci lay taalibi lañ koy wax. maa la ko wax maa la ko wax. ah wow. ndeysaan. man nag dañoo dañoo xaw a ay mbir maa yow. Ah. ah. man kay fi mu man jàpp di dóor sax laa bëgg. Ah. jot na de tubaab képp ku ko xool am lenn looy discuter moom jàpp do man daal képp ku ma dégg nga naan sëñ bi xeexluwul xuloowul man yooyu sama la dul déglu man waxuma moo ma mais kenn du taxaw sama kanam wax ko dara te fajuma ko c'est tout loolu daal ku ñàkk jom dama koy wax man daal sëñ bi moom ko wax la war wax ma daal sa kaw waaw ah, duma rek man na mas naay bëgg a caw nit jaasi laa la man ci sëñ bi da nga ko waroon a ba mu xalam ma jooyee jooyi metti benn waaye xam ne man bu ma jógee ci jooyi xam na ma jëm ama <laughs> may génn sama oto laa fekk ñu rawale waajal te señ te ma wax la len jeewriñ ah. gaay dañu ñak jom mais bu bis bi amul won woon. bu bis bi amutoon. waaw ñom ñepp ñu boti booti ba dañu dañu am jom dañoo amuñu jom. xanaa xamoon ne maam Mor xanaa xamoon ne université bii señ señ sëñ taxa tabax sax am na ñoo xam ne bëgguñ ma yegg dana ag nak dañu soxo dañu xañal eh, dara lañ ci mën a. gogu moy mooy soppali ko jaan mat leen ñu dédé safara. <laughs> xanaa am sañ ji mooy kan moo dugg nag xanaa. dañoo bon dañoo bon. ndeysaan ndeysaan. lu sëñ Modou Moustapha la mu waxoon rek nee na neewoon na neewoon na sama sama sama sama yaram wi hmm. eh, def naa ko bu mel ni taweb lu nit lu ci nit nee nee na li li ko teg ci ay wax ak li ñu teg ci dara nee na bu fekkoon ne tamit la mën naa lay suusi waaw waaw mënta bu doon waaye faale wu leen day na woon a gannaaw rek dëgmal sëñ Tuubaa di liggéey sëriñ bi noonu la noonu la moo ci jëriñee ba mettee nag ba mettee booba kenn waxut ñu toog ba léegi nag mbir mi neex kenn ku ne jóg te xamoo ceeb bi fañ ko toggee xamoo fañ ko bayee xamoo fi nepp jën yi. jom te lan ñu ñaaw di gudd li sikkim di mel melokaan yoo xam ne kenn xamoon <laughs> na yàlla ñu yàlla musal ci ñoom. amiin waay barke sëñ Tuba waaye ñun fañ jëm moom danañ fa àgg ñoom ñun daal seexul xadim nañu àndal. dem rek ñu lay siyaare bu baax a baax a baax. jërëjëf ñu bokk ci taximaani sëñ Tuba yi nooru daare ni soppee seexul xadim yi. maa ngi lay siyaar bu baax a baax jëriñ. waaw ñun moom ñu ngi ci mbakk yu foofu ajjuma jot ñu ngi ci sow sowu jumaa ji rek. waaw waaw. waaw ku ñëw ku ñëw ko daa fekk foo Nourou Daara. ah mooy sama gars yi ñoom sëñ Xaadim. mu ngoo waaye nuyul ma leen waaye. danañ ko dégg ñoom ñëpp dama fay ñëw man bu ma bu ma jullee timis rek ñëw toog. mu ngoo foofu de mooy mooy mooy garam paas taxmaani hmm. moo ñu ko tuddee woon. la ko wax. waaw soppee Lamp Fall taxmaani Serigne góor. ba ba ba man nag euh, ma euh, sama yaay moom dafa bokk ci daara ju mag ji ndax moom. Ah. gàmmu jóob mooy sama yaay man gàmmu jóob. mère gàmm ñun sëriñ njóobu jóob la ñun moom. ah kooku moom maam da daan julee da daan julee tëbaski njaareem ree di am xaram isin isin benn tali. maa la ko wax maa la ko wax mère gàmm moo tax ñu jox ko Masalik ne ko jigéen ñaango. moom sëñ Tuubaa lañ xam xamuñu. jërëjëf jërëjëf waay jërëjëf jërëjëf bëgg nañ. kontaan nañ loolu bëgg nañ ci yow ñu ngi lay safoon suñu tool. waaye man mi itam bëgg naa leen baax a baax ku ñu séen ku ñu séen de mu wax la lu mu la wax rek ma ko bu baax a jërëjëf. Ah, jërëjëf jërëjëf jërëjëf ndeysaan. ndeysaan man maay bëgg loolu sax man maay bëgg bu ma déggee ne wax nañ sëñ bi dara sax damay bëgg wax ma dara ndax ma barkeeloo ko waaw waaye man boo ma waxee dara sama jëmm naa laa bañ wax dara waaye sëriñ bi moom ah non boo amee jom waroo koo parce que war nga lijeenti lu fi jëlee esclavage war nga ko lijeenti lijjanti ma seigne Moussa geey bu ndar bi seigne sëñ ma ngi leen di wax sank ba tay tegal leen mako ko tegal leen mako mu jall mouride di xam li xewon adina di ko xam tegal leen mako mu jall na jall ndeysaan tegal leen mako ko murid yi ñooy saadi may maamoon sëñ Moussa nee bisu keroog la ñaga caam ma ca gabon jébbalu joxe ñetti téeméer yu ma nga rong soxnaam su mag dolli ci ñaari téeméer ku tudd maar njaay joxe ñetti téeméer ku tudd laamin jóob tofal ca téeméer ca mu del su tofal ca fanweer bàynaam sa kay te joxe ñetti téeméer jébbalaat ca bàmba réew ma faf buur ñi jox ko gaal yi cooke mboole mbiri ya boole wali suuf der mu defoon ci tiire ya limal Souleymane Kunta ak bande Touré juróomi téeméeri dërëm lañ fari Ousmane gabam la baayam jébulu joxe mboolem këram gannaaw ga lañ ko fa joxe baayam da ko dugal saxaarug la Gabang takol kaab tikir mu ñëw yor li bon keroog la Abdoulaye Sall daanu daldi ni janjang waa Gabon ñakkaanu jox na keroog sëñ ba fukki libi door ak yetti téeméer waa këram ñu soog buur soxnaam si tudd xadi jox ko téeméer taawam bu góor ci ñaari téeméer limal jaraafa ma nga dëkkoon Bambey keroog la jébbalu di besi besi jooy ko fooro fooroon boroome kurwa Bamba ka jot tagla ko ki balwa bisub keroog jox na xaadim téeméer boole ci ñaari tappi kooka moom foor sëriñ Moussa jox nañ ko ay addiya booleeg ruuya naa bamba tuubi ruubi moo doon jooya Ababacar Njaay tekki demba fulu be yi gaay yi jibloo gaboo ngi benn neel maram Njaay neel maram njaay dellu teg makkuli jéey ñi jibluñ ci xaadi waay ne cey sëñ Musaa ne yi adduya bawoo gabon jam tuuba ci ma xam yàlla nu tàbbi tuuba adduyati safar la daa konaakiri lil Mustafa al maay bila munaaki nekk weddi lii nga dem ko laaj Ahmadu Lo moo àndoon sëriñ ba moom la santloo Mata tegal aajo habibu ñooma ko doon wax bul di weddim ceebo cheikh moustapha leen ya aida ma yombo ñu yóbbu ay daayi yor ko bambo cheikh moustapha leen yabaloon ma yomba ñu dal di dem ci ndigalal cheikh bamba saxaar ga xëy te di nakaaru sëriñ ba jant waaru niti fan ak bamba ni jalañ waaxu message siri ni marañ ci fukki fan dib gaaw wéru saabaan la di jalañ di buusu mel nim saamaan labaya naa ko bamba yaa di ndaanaan yaan ya naa labay ka sayxu soodaan la naa ko bamba yaa di ndaanaan yaan ya naa labay ka sayxu soodaan mu romb borom ndarum ndakaaru yabal ko kër ma paate mbay ngir waaru ma paate mbay yóbbu ko kër gorom ba mooy monsieur yes jaañ bàyyi buur fërimb loolaa taxoon mboor jaañ tabax na jàkka am na la seen dënnoor di waajal màkka Cheikh Ibra Faal dal ni jaas fa bamba dal ko boot yóbbu këram mooy barba sëñ Musaa ne keroog murid yare bay kakku bay taxaajoo de xaqataay buriyee jooy de xaacu bés ba Sëriñ Tuubaa fanaane lambi naas mbég na nu mbég moo xam ni jooyuloona France keroog ba Seex Bamba France lambi naas euh, mu mel ni maa ngi ñëw ci euh, li mu ko waxee ne keroog ba Seex Bamba France bég na nu mbég moo xam ni jooyloo France loolu nag euh, mu doon loo xam ni bis la boo xam ni ñëpp war nañ ko bàyyi xel ndeysaan euh, euh, am na archive boo xam ni Serigne Mbaye Dièye Sylla jox na ma ko muy soleil bi nga xamante ne moo tudd journal officiel keroog ñoo bind ñi sëñ Touba wàccandool ci bato bi loolu sëñ ma ñaan boo ko affiché nit ñi danaa leen ko relater ba ñu xam ni ñii ñoo àndoon ak sëriñ bi wàcc ci gaal gi dëppook bisub tey bii di 11 novembre muy ay tirailleur ak ay euh, euh, ay ay ay noirs yoo xam ni les négros africains yoo xamante ne ci gaal gi lañ wàcc loolu boo ko indee journal bi tudd le euh, journal journal officiel bi nga xamante ne par samedi la daan génn boobu le 15 la génn samedi boobu bisu le 15 ci la journal bi génn gis nga ko noonu mooy gaa bato bi nga xamante ne Bordeaux la war a dem gis nga noonu mu doon monsieur Robert don docteur ci la wàcc ak Marcilini docteur ci la wàcc ak ku ñuy wax euh, le la Logronnier euh, ci la wàcc moom tam buubu Sock ci la wàcc ci bato bi la wàcc ak Mamadou Bamba ñu jublu ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci la wàcc ak Jaaji Soumaré ci la wàcc Moussa konaate ci la wàcc ak euh, Souley Bikili ci la wàcc ak Car François 14 car François aussi ci la wàcc ci bateau boobu ak 14 tirailleurs ak 13 noirs ñii ñoo wàcce ci bateau bi nga xam ni moo indi serigne bi lii nag day wane ne rek la Cheikh Mourtada demoon def ko Chicago maa ngi ziar waa Chicago ànd ak sëñ Cheikh Balla Samb mi nga xam ne mooy suñu directeur nga xam ne aggé ñu àggee sëñ Moustapha Gaynde Fatma noo ngi koy nuyu di ko ziar dañoo bindoon ne Serigne Touba wut waaye lii journal francais ñoo ko bind tey jii ñoom am na lu ñuy màggal ci 11 novembre bi waa France moo tax bisu keroog bi ñu wàccee sëñ tubaa sëñ Touba lu neem day am lu mu symboliser ñoom rëkk nañ 21 kënu ci suba gi fii pale bi nekk tey président Macky Sall mii di fi fanaan Cheikh Ibra Fall ko moomoon jëndoon ko jox ko Cheikh Ibra tubaa Touba addiya am na benn photo bu ànd ak euh, jox naa la ko mañaan wane wan ma ko photo bi Blaise Diagne ànd ak Cheikh Ibra Fall fii nekk building administratif building bi ñu tuddee euh, Mamadou Dia président Mamadou Dia Cheikh Ibra Fall fa la dëkkoon bàyyi kër sëñ Touba penku ko waaye ba sëñ tubaa di dem la ko jox sëñ Cheikh Coro moom la sëñ Moussa Gueye dina indi léegi ci kanam keroog ba Cheikh Bamba xëyee dem Ndar la ko jox seex Coro moo ko def kër sëñ Cheikh Coro moo ko def kër waaye ñii daal ñoo wàcce ci gaal gi ànd ak sëñ Touba ci 1902 Ahmadou Bamba revient au Sénégal honoré de gloire contrairement à ce que croyait le colonisateur. Le prestige d'Ahmadou Bamba a considérablement grandi aussi la période la plus difficile, la plus critique et la plus dangereuse de la vie du marabout. Vactuel commencé un projet sinistré visant à la faire passer les armes et mise au point. bis bii nag doy na Cheikh Anta mi ngi taxaw ci bato bi euh, mag ñi ñëw bari nañ ma Fari nañ ko Cheikh Issa Diène ñëw ak ñeneen ak ñeneen waaye Cheikh Ibrahima Fall ku ci ràññiku la am na mag moo xam ne dem na bay ñëw ñu ne ko foo jëm mu ne man de ndakaaru laa bëggoon paas bu ma fa yóbbu ñu ne ko foo loo ci loo ci jublu mu ne damaa dégg sama sang ba Cheikh Ahmadou Bamba day ñibbisi mu daal di ne ah ñu ne ko kooku daa mel ni bu bu wàccee de ab néewam la tubaab bii wàccee xoolal loolu rumeur yàgg na maam Cheikh Anta ngi sol grand bu baxa bu nu gomee baxa sa suñ gaawaan Sidi Muxtaar deux mètres zéro deux la daan mesuré Ndakaaru fees dell bi su tey bi gars yi ngor war naa am ak jom waaye li murit yi jaaxle keroog murit boo jox kaasu witu ndox du ko naan murit yépp jàq ñii du mooyu ne duñu xool gaal gi sëñ Abdou Samad wax na la ko sànq ñu toog tuuti léeg-léeg nu gis Seex Ibra Faal mii nu wane léegi léeg mu dox ba jege bato bi ne ah sëñ Bamba namm naa ko de ah xet gi xeeñ na ma de soreetu fi de di wax yooyu ndeysaan ñu toog ba yàgg ay trois heures di soir ñu wàcce escalier bato bi moo escalier bi ñu la wan sànq ci lañ ko wàccee ñoom tubaab bi taxaw ci kaw xam nga waaxi Moussa Siri boo déggee sëñ Moussa ka di ko wax waaxi messagerie la da ko da ko da koo olofal mais message yi tubaab bi daan lancé pour nit ñi dégg ko fa lañ daan taxaw am ku taxaw daal ne uwee Seex Anta ci kee bi maam Seex Anta ne maa ngi ñu ne ko kaay wuyu sëriñ bi moom la la sëñ Abdou Samad doon wax nee na kero xool nañ ma bët boo xam ne bu ma gaawoon a faatu faatu njool Anta Njaay laxasu jël kaala ga takk ci ndigg li nee na tubaab bee jiitu ma topp ko foofu nag war ngeen am lu ngeen ci jàngee. kii la ne dalay yóbbu sànk la boo demee ba koy yónnee xamal ne yaa ko man mos na ko wax sëñ Amsatu Jaxate Amsatu mu ne ko Mbàkke mu ne ko sama digganteek nasaraan bi nu ngeen lu ngeen foog ni mooma ko Mbàkke mu tuumaal la mu ne ko nuru na ko de waaye Amsatu daa mel ni kii dane lii laay def kii ne ko doo ko fi defee ñu waxante ñoom ñaar bañ dégg leen ba yàgg ñu ne runkum ba yàgg ñu ne meng ci xur kenn gisatu leen ñu sax fa diir bu yàgg kenn déggu nu toog ba yàgg gisaat leen nu ànd ñëw waaye am na luñ ci war a jàng di am satu mu ne ko lan mbàkke mu ne ko kane woon lii laay def mi ngi ko do mi ngi koy def te ko doon tere tereetu ko moo tax ñi yor seen làmme ñu rëy foog ni yoonu murit mën nañ cee wàññi virgule déwén la màggal gi njébbal gi déwén lay ëpp déwén lay ëpp man maa ko wax <laughs> déwén lay ëpp barke sëñ Tuubaa ndax nit ñi comprendre nañ ñi ngi xam léegi fi fen yi ne ñi ngi koy xam ñi nga xam ne dañuy wax loo xam ne amul ñi ngi koy comprendre léegi sëñ Muntaxa moo yor lu leer bu dul dara sax xëy na bu dee màggal géeg yooyu sax yow mënoo xam baatin bi mais baatinu coronavirus moom sëñ Muntaxa wan nañu ko mbàkki bàlla yaanu ko wan vaccin bu ne gars yi jël nañ ko gis naa ñu jël trois dose te ñu ngi ci biir bàmmeel gis naa ñu jël deux doses faatu ñii naan dose américain bee baax ñi naan almaa bi ñi naan vaccin bi tubaab yi defar am na buy jóge Portugal ñi naan Didier rawul médecin yi comprendre gu ñu ndekete ki xam doos bi xam ne xasida sëñ Tuubaa yi mooy doos mu dose nu sëñ Muntaxa jox ñu jës bu ba nu doyal mu jox ñuy ma moyen bu ba ba ñu doyal dóor ñuy mu xaddimaat raa iya jaar fee keroog la nit ñi jàng ba dégg xasida yoo xam ne mësul koo dégg hmm? xamoo sëñ bi bind na xasida koo xam sax boo koy jàng di lekk ndawal <laughs> barke sëñ Tuuba boo am na boo xam ne boo koy mooy bu moom maa la wax ñam ko ñaari fan da am xaalis man maa ko ñam moom mooy bu naafi fi madaay saafi boo koy ñam rek di am xaalis sëñ bi wan ñu lan mooy xasida waaw jëlaat baatin bi joxaat ko sëñ Tuuba gaa yi topp di wax xanaa kay ku toll nii bu defee lii te yow boo seetaanee film dong acteur bi def une mission réussir ko film rek nga acteur bi film rek hein? te trucage la li le ñu acteur bi rayna na un ci film bi dajé nak chef bi doog koo il te ginnaaw suba nga gissat len ci benen film kon trucage la nga fa koku ki fait man supporté ma xam na dama leen di man damay un film di xol parce que ki gagné mo lay faral man gagné daf ma neex ay hein ah? mais je suis un film yëpp ki ma ci gënal suis Steven single moy ki ñëwon ci Seigne Saliou moy américain un xam Je ñak ñu ko da ngay faatu kat suis Kader indi ko ci Seigne je mu jox ko café tambalé ñak wa suis ci gënal ndax bokk ah? nga ñu wax la benn naar ca Égypte def na nàngam nga nu ci bëgg a rey kii dëkk ak yow waxuma sax jaloor yi sëñ tubaa def waaye jaloor yi sëñ Muntaxaa yi rus nga cee wax noppeetoo nga jël sa làmmiñu tooke teg ko ci ba xam murid dañ la ci seetaan acca nan dem nun sëñ tubaa leen gëm bu du koon moom nit ku ñuul du doon dara fii rien du doon dara am na benn tubaab bu bindoon ñu ngi koy wax Vic Victor Hugo l'oiseau qui donne l'esprit n'a jamais traversé l'Afrique Lolo, ce wax dane picc mi doon joxe xel bi mu awul Afrique euh, l'homme est un esclave la douleur est son maître mais nul ne se connaît pas de tant qu'il n'est pas souverain de tant qu'il n'est pas souverain Lolo, loolu la wax kon nanu xamaat sëriñ bi mooy kan Antoine Marc le Self dégg nga li wax ci moom kon ñun Serigne Touba lañ bis bi bi sëñ gaawaan duggee ci biir bato bi nee na dama koo jub gis kaala ga tas mu muuñ nee na samay tànk dam ma raam uti ko mu ne ko seex mu ne ko mbàkke mu ne ko waat naa wàcc naa wàccaale ku ma yaakaar na mbaxanam curu car ak saatu su mu leeleewee yi xam ko ndeysaan am ko seex mu ne am na ko sama tànk yi ba ñu ma ko ko toppaat de seex waxuma fa lu ñu leen di xeebe ëllëg de lu ne mu wax ko ko maam seexante di jooy rek ni ko sëñ Abdou Samad waxee sëñ gaawaan na njëkk a nuyoo seex Ibra ci topp waaw ana lan lañ ci sëñ Moussa Ka waxaat indil ma ko foofu sëñ daam yaag sëñ Moustapha indil sëñ sëñ sëñ sëñ Mañaan yaag sëñ Moustapha lan la ci sëñ Moussa Moussa Ka waxaat dem leen ma xool baykaku bay taxaajoo de xaqataay bu nu yey jooy de xaacu bés ba sëriñ Tuubaa fanaan a lambi naa nu mbég moo xam ni jooyuloo na France waa kay samp ndeysaan ne keroog ba Seex Bamba fanaan si lambi naas mbég nu mbég moo xam ni jooyuloo na France Seex Ibra Faal jébal ko mboolem kër ga ak lal ya ak braage naa ko mbër nga keroog ba Seex Bàmba xee dem Ndar la sarax Seex Coro moo ko def kër alhamdulilah yàllaa ko doomi xadimal xayri xalq bil maqdoomi sëñ Moussa ne taarix ba lim naa ko mu tolloo kasasin mi bagay fay naqar wa woon cay jëy sasin sëñ Moussa ne déglu ma wax laati ne déglu ma wax bés ba Seex Bamba gonte fa ndar jëm daaru yenn yen ba keroog borom ndarum ndakaaru ak ndar ñoo ko siñeel ahlul badar daal koy dar ñu naa ko dellul Mbàkke mbaate Tuuba tey fu la neex dëkkee fa doo ayooba bésub talaata benn pan ca ga ca la gonte ndar cay guur ga murit akub tiijaan akub nasraanu ñëpp nga ànd daam kasaal bay daanu mu wàcc gaarub Luga réew mi teeru mu jaari kër seex coro mooy saxiiru am na fa àllarba ak alxamis ak aljuma wariw ma naan ko marhaban say xen jamaa la dale njaambur jàppiriwum waalo ñippe siyaar si doomi asta waalo kajoor di kañ di Mustafa waa kooku ñuy sargal baayu Mustafa sëriñ Musaa nee bisub keroog la soxna Faatima du indi sëriñ Basiiru muy siyaare daam ne Seex Umar Géy moo ko jël si kokki ci Seex Bamba duuna sàkki keroog la bamba naa sëriñ basiiru insa rabbi dina def nasiiru sëriñ musaa ne keroog la gont wiy fanaani jiisa kër jula siise xëy taxaw sa donsi ne gaaw ba mooy juróomi pan koor ga foofa la sax ba yàlla jeexal koor ga nee na keroog la wax sëriñ si rek waa sann war ngeen a sant tabbi ngeen aljanna madhu rasulillahi rabba kulli wasarmadan jala kasran xulli madhu rasulillahi xaadili sala kama kafaani kula sarsi si tala madhu rasulillahi saara junna li an asan wali an taabal janna Serigne Moussa ne nganuk Serigne si gafa si mën a sukoo xibaar ci waa uruusi nee na bëy nag ak gëléem la daa rëx daam la ko dambel ndab ya baata may dox si Musaa ne foofa la Bàmba woore weeru koor wa booba la fay jaanama ak tàngoor wa Sëriñ Musaa ne foofa la Bàmba woore weeru koor wa boobee la fay jaanama ak tàngoor wa تلينة الخضر جبان برنالن منكرك نكير وخمين نجلين وكل سي يبني يبيان يوم الجو صدا تبيان سيد مساعدنا بسكرو كرجة الخميس لا سيد مساعدنا نكرو كرجة بسبع الخميس سيغبان برنام وصل لين لم وصل bisu bal xames la Seex Bamba naa mos la leen lii mos la nee na korite gaa nu nal janna ku weddi lii nga laaj ku guuru sann Seex Bamba saa korite ak sannu si moo fay gawoon eh, waaw lii rek la la dama koy eggale rek xam naa bu ñu ko defee ñaari parti rek daal di daal di daal di daal di daal di léegi ñu jékkati jotaay bi mais damaa bëgg eh, nit ñi comprendre gis nga lii sëñ Moussa Ka di wax nee na keroog joo ci dégg sëriñ Moussa Ka sëñ Touba moo ni fii keroog nangam moo tax mu bari ci Désau Sakour nee na keroog nee na keroog jàmmante na ak ahlu badar ñuy saafante ñëpp rang defi gawar nee na keroog ànd na noog jibrilu mu war ci kaw ay soom tey jëmbiru nee na keroog tuuti badar ja dekki nga allu ni ahlu sax dañoo taxaw pour xeex nee na keroog tuuti badar ja dekki waaye borom garaat ya ñoo ko tekki am fañ ko takkoon ñoo tekki mu ne nag mu ne ba mu di dem ndar la ko jox sëñ seex coro moo def kër muy bi pale bii alhamdulilahi alal xudóomi mu ne nag ma wax la bis ba bàmba tàbbee ne keroon la xëy fanaani jiisa kër sëñ julli siise xëw taxaw sànnu si daldi ne kër sëñ julli siise xëy taxaw sànnu si keroog fanweeri fan ca weer wa moom la taxaw keroog kay góor ga daal ni murit akub tiijaan ñëppay akub nasaraanu ñëppay ñëw fa daam fa koy fa koy bàyyi mu daal di ne nag mu daal di fanaani màkk sàmba baabu booba bisu keroog mel ni ni ñëw na tuubaa li mu bëgg wax mooy dafa ne la la daleen njàmbur jàpp réewum waalo ñëpp mujj di siyaar si doomi doomi assa waalo kajoor di kañ di kañ xaadimal Moustapha waa kokki ñay sargal si bàyyi Moustapha dafa mujj ku ko dégg rek takk saw saret daal ne tubaab bi yóbbu nit indiwaat ko loolu suma bët rek am na ñu seetaan si jébbulu dem na Màkka Samba Baabu xel kër sëñ Maxtaar Marema di nga dem léegi ci kanam di nga dégg mu mu mu indil la Mbàkke Kajoor waaye li gën a doy waar sëñ As ma Baabu dafa mës a bind sëñ bi lettre ne ko bis bu ma faatoo Mbàkke damaa bëggoon nga jullee ma sëñ bi ne ko incha allah daal di denc bataaxal boobu waaye bi sëriñ bi di ñëwaat Màkka Samba Baabu xoolal li ma lay wax wax na ko ko ay at sëñ bi téye ko léegi sëñ bi dem na ci géej gi di def tournée boobu mu def bi mu ñëwee Makka sàmba Baabu bi mu taxawee ci pénc mi di bëgg a wàcc fas yu mu war ci lañ yuuxoo sëñ As Baraama Baabu xoolal loolu sëñ bi daal di génne bataaxal ba wan leen mu leen ndax am moos day bu ma ñëwutoon du faatu mukk ndax lii maa ko ko waxoon te sama insha allah rek la yàlla di déglu koo koy góor te gars koo koy waaja waaja ngoog teq leer yi jébbal leen sëriñ bamba seeni tum jàpp leen ci sëñ tubaa mii bu ma sañoon Sénégal ñëppay dem àjjana te ku ko fi bàyyi gëmoo ko wóoluwoo ko soppoo ko yaakaaroo ko sawara nga jëm fi ne gaa yi nga dégg ñëpp ñu leen di tudd ñuy wax sëñ bi dara ba bañ bañ koo tuub ñoom ñëpp ñoom sax ku leen xool xam ne du ñu ay jullit ñoom du ñu ay jullit de ñoo indi ay guerre yi nga dégg ci ci àddina bi yëpp dañoo ñemewut waa Sénégal rek parce que sama classe gaa ngi fi barke Cheikh Ahmadou Ba mais ay ay ay ay dañoo ñemewut seen majorité lañ doon xool nu mu toll moo tax mais xam nañ ni comme woote nañ ay yeek ñu ne ñëw te benn saal rek lañ fees xam nañ ni bu ñu songee murit yi njogonal lañ leen di def duñ doy fii sëñ Tuubaa ko moom réew mi loolu xale yi naan réew mi Bàmbaa ko moom <laughs> réew mi sëñ Tuubaa moo ko moom waaw ubbil ma téléphone bi ñoo doog a dem ci dernier dernier kii bi ma ànd kook murit yi ndeysaan maam Balla Touba euh, Darou Salaam di jàmbaar joo xam ne ku ne xam na ko ci commité de pilotage màggal Darou Salaam jéem naa dugg ba sonn moom itam waaw bu ma teeloon a yëg sax da ngay ñëw jàpp ci émission bi ndax borom xam-xam la te gëstu na bismillah sëñ Jolasam sëñ Modou Roqe daanu na. waaleykum salaam da ku dugg. Aku ku dugg rek da nga may dimbali wañi télé bi murit boobu. ah mo ma xamoon da ngay dugg yow li nga defal seigne gawan waa léegi ah, wàññi wàññil ma télé bi te nga dugg yow la doon wax legi nan dugg nga ba sonn. wala nag daanaka nga ma tay na dañu ne. alhamdulilah na sëñ Gaawaan bu dégg tey yow sëñ Gaawaan bu bees dégg maa ngi koy jégalu de suñ <laughs> gaawaan ndeysaan yàlla fay amin yow fay loolu daal loolu mën a indil ci moom ak loo ak loo yëg tey da ngay wàññi télé bi sëñ Mame tele bi da koy bañ a déglu ba mu jeex tàkk ah, waaw télé bi danga koy bañ a déglu waaw ndax day am benn retard buy am sama digganteek yow boo ko dégloo. waaw li ma yëg li ma yëg na waaye li ma gën mooy. Hmm. bi sëñ bi jógee géej. Mhm. sëñ Samat wax wax ko. suñu waa njëkkoo jox loxo cër la moom xes da yëpp moo di woon hmm. moo seex moo seex war ñu koy roñ te hmm. wàccee xasida hmm. loolu sëñ Mamour ki demoon ki demoon Gabon suñ gaawa tax sëñ bi ñibbi comme ni nga ko waxee. Mhm. sëñ bi ñëw mu njëkk koo jox loxo maanaam loolu kenn si maa ngi maa ngi gis jotaay bi nii man man maa ngi gis li ngay wax nii. maa ngi ko imaginer histoire réveille les ngay kenn sëñ gaawaan ngay kenn sëñ gaawaan. maîtriser yoonu géej gi ñu ngi fay na ko. alhamdulilah alamin. te ku xool sa jëmm ji. Mhm. xam ne dëgg la dëgg la man baal wax nga dëgg de. asalaamaaleykum wa rahmatulah. oh ndeysaan man damaa bëggoon moom mii euh, comité de pilotage màggalug euh, Daaru Salaam maa ngi siyaar baax sëriñ Eh, abu Mangziar ngi ziar bu baax mbak serigne Abou euh eh, mi nga xam ne khalifa xalifab Cheikh Mouhamadou Mamoun ak wa daru salam gep ndaysan soxna May euh eh, serigne Kader mi ma don tuddu moy magam daanu na soxna May Daba Diop wa Mbakke xewer te yengu nan ndaysan bismillah alaykum wa rahmatullah alaykum salam wa rahmatullah serigne mamour jëwriñ Abdoulaye Sène moom Cheikh Abdoul Karim Mbacké moom Serigne Fall moom Xaadimal ah yow sab Serigne leer na ma ne mi ngi seetaan sëñ Abdou Karim murit baa ngoog leer na ma ne mi ngi seetaan <laughs> kooku murit la Jaxaay waaw maa ana waa Madina booba booba de sëñ buubaat na ko rek wallaay buubaat na ko ba mu jeex tàkk <laughs> yàlla na yàgg barke Cheikh Khadim allahumma amin ren dama koo yeex yëg loolu nag ndeysaan ndeysaan amiin amiin amiin dégg naa bu baax a baax. ndeysaan. tey sama xol gën naa gën naa tooy ndax naka jekk moom tooy day dëkk di tooy Sëñ Tuubaa. murit nga. waaw loolu yàlla saa borom dogal na ko dimbali na ma ko. ndeysaan ndeysaan. bu may faral di wax naan ñaar yi nga xam ne bu doon dañ koy fay nii. Mm-hmm. dañ koy fay yàlla mënuma koo fay mooy man daf maa def may séeréer. ci lu mm-hmm. waaye yaakaar Sëriñ Tuubaa ñaar yooyu daal mënuma koo fay Sëriñ Tuubaa. barke barke borom ñaar yooyu yàlla mënuma koo fay yàlla. Mm-hmm. sëñ ma Mor bésu tey bii le 11 hmm. novembre 1902 wallaahi deuxième tey jii ceeb yu baree ngi tooy tey man de yàlla saa borom na ma ma dem Gabon hmm. màggalu Touba 2012 Gabon laa ko màggale waaw ca Montagne Sainte Montagne Sainte maa fa dem yàlla dimbali na ma ko mais sëñ Ablaye Balaye Saburi demoo maa yomba de déedéet jotuma dem Mayomba. la illa moom kay beneen affaire la. bëggoon bëggoon naa dem Mayomba. waaye ma yoroon waaye sëñ Maamoor sama xol sedd na. jërëjëf seen. 2012 boobu ma màggalee Gabon. Mhm. ci montagne sainte kër sëñ Tuba gi foofu. Mhm. bi nga fa demee vidéo yaa ba léegi. ndeysaan. waaye wax naa keroog ne maanaam tey jii fii neex naa nekk. Mhm. waaye wi sëriñ bi nekkee wallaay la sim foofu boobu neexut a nekk ndeysaan kon la sëriñ bi doon liggéey démb mhm. moom la jaam yàlla yi añe tey mhm. dégg naa tànk li nga waxit lu may dëggal la mhm. waaye man sëñ Maamoor dafa am loo xam ne rek fa laa teg mbir mi yàlla saa borom moo ne daa bindi aljana bindi safara te lépp nag dafa war a am sëriñ Tuubaa ne yàlla dimbale ma xol boo càmbar fekk ma ca bu ko lakk maa la ko wax. kon ñooñu àjjana la àjjanaa tax yàlla saa borom bind leen. maa la ko wax. waaye dama wax ne xool boo càmbar see ko ci sëñ Tuubaa yi. na sëñ Tuubaa wax yàlla. te yàlla moom bind na sawar ba noppi te day andi nit. boo càmbar see ko ci sëñ Tuubaa man jaaxlewu ma. dëgg la ca loola. dëgg nañ bu baax a baax ñoo ngi ñaanal Cheikh Abdou Karim Mbacke mu yàgg ci ci ci ginnaaw kilifaam yëpp. gis nga gabon gii ñu demoon noonu ñu lay wan image yi. waaw. taawub sëñ Muntaxa ngi ci waaw ak doomi sëñ Aboo sëñ Galas. waaw ak taaw sëñ Abdou Karim muy sëñ Galas Sindiidi. sëñ Galas Sindiidi waaw. ñun ñi ñoo àndoon bokk ci contésan mais dañoo jiital ñoom dañoo mujjoon ne sëñ sa ñi ngi topp ci ginnaaw seen mag jooju rek di sëriñ ko ndeysaan. waaw keroog bi ma ñibbisee. waaw. suufus gabon. ak xobi garab ya. waaw indil naa ko sëñ Abdou Karim indil ko Seex Basum sëñ Abdou Xaadir jox naa ko sëñ Muntaxa. ndeysaan ndeysaan waaw. sëñ maam Mor may fasante waat ak yow kóllóore rek ndax kóllóore gi dafa yàgg. non yàgg na yàgg na boobu est ce que boobu. xam la woon boobu maa ngi football xanaa sax. waaw yàgg na yow bi ma lay xam boobu defu ma Ibrahima Sall ca jàmm gën. <laughs> kër Sulaye. may ànd ak sama tuutànk bu ndaw bi ñëw di ñëw foofu. Eh, wax nga dëgg de. jërëjëf sëñ Mamour bég nañ bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf waaye daal dañu santaat yàlla bu baax a baax. ba ñu yàlla saa borom Ibrahima Sall ndeysaan ba boole ñu ci ci ci ci waa kër Serigne Touba. amiin amiin barke Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fall yàlla fi yàgg loolu téwél. amiin amiin amiin amiin jërëjëf sëñ Mamour bég nañ bu baax a baax. amiin amiin euh, maa ngi lay ziar baax sëñ euh, Ablaye Sène jëwriñ Cheikh Abdou Karim Touba Jaxaay sëñ Ibrahima Sall ma koy ziar waaye itam maa ngi ziar sëñ Muudu Mbacke si mi nga xam ni kër sëñ Touba yëpp euh, fii ci Sénégal moom la ko Seex Basirum sëñ Abdou Xaadir di saytuloo muy jàmbaar ñoo ngi koy siyaar di siyaar baax njabootu Alaaji Góora Sekk yàlla na suñu borom dolle ay leeram waaye itam noo ngi siyaar bu baax a baax euh, soxna Ayda Saaliw euh, nekk fii ci Géejawaay euh, jeex tàkk ci sëñ Touba barki démb bisub sëñ Modou Galas Mbaay bi gis ngeen taxawaay bi mu ci am di ziar baax a baax imaam Gassama tam di lépp seex Basiru moom sëñ Abdou xadr moom itam noo ngi koy ziar baax di ko ñaanal bisam bii le huit la fii ci parcelle waaye sëñ Ibra Sarr Guèye xam ngeen ko jànkatu xasaayit sëñ Ibra Sarr Guèye dëkk sama kër sama koñ ñëpp xam ko bis bi muy def ren man la ko tuddee kon nag murit yi laa ko tuddee bis boobu na ma fa ñëpp fekk le huit la incha allah moom itam na ko murit yëpp euh, bàyyi xel euh, foofu ci jàmm gën kër sëñ xaadim Samb cosmétique ñëpp xam ko euh, mu mel ne ndeysaan dañuy continuer ubbi gars yi dañ ñi ngi réclamer ne affiché leen numéro bi dañuy làmbatu rek waaye boo leen leen affiché leen numéro bi tam sen sen di sen sen sen sen sen sen sëñ sëñ sëñ sëñ mañaan affiché leen gars numéro bi ndeysaan nga indil ma encore li des ci sëñ Moussa Gueye lan la wax bi mu jógee bi mu jógee kër Màkka sa euh, bi mu jógee sànnoo si nga dégg mu ne nag waa sànna war ngeen a sant ngeen àjjana wàccu la si yoxoy bu ne yab yadu yow ma ujoo soodaa tab yadu mu ne nag kori gaa ñu dàqal àjjana ku weddi li laaj ko góori sanna ku weddi lii nga laaj ko góori sànna korite ga moonu dàqal àjjana sëñ Tuubaa ne ana waa sànna xam nga loolu loolu ku ku ku bokk ci ku bokk ci gétt gi mayee ci meew mi waaye jàpp ci nag yi joxe borom gétt gi laylatu xadar la ñuy def ba fajar jot mu ne tëll génn ana waa sànn ñu ne mu ne sant leen yàlla ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin mu ne tàbbal naa leen àjjana waa sànn aussi waaw góori sànn war ngeen a sant tàbbi ngeen àjjana loolu kenn rek ko sañ Serigne Siré Lo nu serigne sirelo ga ca sanusi, si day motax mourid day am day am day am ngeum ngeum am pas pas ni serigne lo dagana mi mam mala wax ha ah? nanu nanu royat ñoña nanu xol serigne babakar ndjay ciargan lan la ko serigne touba jaralon serigne aliou diouf lambay lan la ko serigne touba jaralon ñoña ñoy sunuy beut hmm? nañ xol serigne mamar mané mbay nga xamni wërmbal lañ leen def na leen digeen bayyi serigne touba waaw dañ leen a boole sol ci wërmbël di bocc gobar feeñal damb dàmb mooy deret ku nu dugal ne rey nañ ko ndeke dañ koo nëbb ko ca topp daal di ne ay waay nan ma nan ma tër nan ma rey du bàyyi sëñ Tuubaa ana ñooñu ñooñu xanaa ñi ñi ñi ñi fàttali sahabatu rasul nun tey nu bari fi gën a bari nit ñi attaqué sëñ Tuubaa ñu ne bu leen kenn wax dara pour lan du moroom na ko nit ñi bàyyi du morom ku ci bokkul nang ci maandu monsieur le monsieur le ministre de l'intérieur monsieur Antoine Félix Diome sama xarit nu bokk lépp mu yor réew mi war koo aar bind na benn arrêté ne ku ne na yem ci li mu gëm mais tooñ gi sax ëpp na loolu nanu xool kenn ku ne sa pas-pas nga yem ca chrétien bi na dem église sa yoon newu ci kay dem ca soirée ba sa yoon newu ci ñun bu ñu waxaa bis di romb ak seeni cëkkël bëggunu leen a doon maandu leen ci sëriñ bi bokkoo ci maandu xam nga ñun ba tey ñun ñun ba tey yomb na noo jubal nun danoo booloo gëm kenn ne ko loo def baax nanu neex nanu ni nga mel moonu neex mais neexula la maandul maandu ci maandu ci te loolu lu ñu war a superviser la di ko xool di ko topp waaw di ko topp nanu maandu ci sëriñ bi ku ci bokkul maandul ni sëñ bi mel neex nanu lu mu nu fayee d'accord nan nun noo ko bëgg nun noo bëgg sëñ Tuubaa noo ko bëgg waaye àggaleel ma ñaari ma jël ñaari téléspectateur nga àggaleel ma ko bu àggee ba àgg ma xool nu may yëkkatee jotaay sëñ Mbaye Dièye Sylla waroon nañ koo jël waaye dafa nekk ci yoonu aéroport bi war a dem euh, inauguré ji dédicacé livre am boobu mu bindoon ci ma du Bamba mais pare woon nañ pour jël ko par téléphone su fekkee mën nga koo jot sëñ Mañaan mu dugg tam nga nga jéem maa làmbal loolu sëñ Mbaye Dièye Sylla nga jéem ma ko nga jéem ma koo jotal moom itam ma nga ca aéroport yàlla na ko yàlla may tukki jàmm ci barke Cheikhul Khadim su fekkee am na ko dugg rek ñu jël ko Euh, nga nga nga tegal ma nga tegal ma euh, sëñ Moussa Gueye mu continuer nu de sëñ Moussa Gueye mi nag maa ngi ñaan murit yëpp nañ li lijjanti numéro mag la te carrière am bépp jeexal na ko ci sëñ Touba damaa bëgg ñun ñëpp kenn ku nekk sa àddiyee na dem ci sëñ Moussa Gueye te ku bëgg am numéro am di nga ko am barke Cheikh Ahmadou Bamba lii munu defal ci sëñ Touba ku ko waxoon euh, ab lawbe bu desee mbaam jox la ko te sunu sëriñ la kañ nag waaw sëñ Moussa def mu mu woyaat ko wayin woo xamante ne dootul am ci histoire de l'humanité sëñ Moussa Gueye bu ndar sëñ Moussa Gueye bay Moussa na ma murit yëpp maa ngi ñaan sama mbokki murit yi nun ñëpp nu teral ko ngir sëñ Touba ni ko sëñ Akasa defee woon fii ci Masalikul Jinaan nan teral Baye Moussa Gueye bu ndar waaw xoolal li mu woy sëñ Touba continuer ko ma xool continuer. moo wolof ya ne bi teew ja fay numbal ja jéem tële di bàyyi gàcce jeece sëñ Moussa ne mu wax naati bis ba daam xiyee sannoo si jëm si ci riwu Mbàkke naatal suuf si gaawu di ñaari fan ca weeru kori wa la Bàmba gonte foofa ànd ak fere wa julli timis fëkkër sëriñ Galaay Jaw boole ci julli geega baleen jëw fanaan si màkk kër samba baa bu booba guddik dibeer ga mel ni ñëw na tuuba booba laas baraayim baaba faatu Seex Bamba rom ko li layayaatu ba mu xëyee la daldi ñëw Mbàkke Kajoor yendu fanaan dellu yendul waa Kajoor bawal di walwali Kajoor di jooru di way Sëriñ mu daldi muuru makul di big di bak mer mer na ko sigil ruso dagul de nyako warma sëriñ musa ne keroog la bamba gonte fofa altini wariw ma naan ko ñi la xam fi tane ba tay mu jaari kër sëñ ma samba xari ni nijaayi seex basir kasiful kuróob fanan fa fa bigal wa barba gonta fanaan njaxal guddik alarba sëriñ Matar Marema Sylla ak taar ba moo ko dalal moo tax mu seexal taaw ba sëriñ Musaa nee bisu keroog la soxna Faatu Sylla dëj Seex Bamba bool yu fawqa Sylla ma diba Sylla sabaxal kibaara maa sixaara fawa laa yu baara sëriñ Musaa nee sax na fa fukki fan yu mat di baawaan ak ñaari fan waar yow ma mépp saawaan ngan nga mënees koo xibaar si amal na benn panoog firdaw si daarul jann foofa la kaang ya ak fuuri yaa kàngam ya fekk sëriñ tuubaa di fóon ténkam ya sëriñ ma sàmba xare si tay ba keroog loon nosruub nga jox ko bàmba keroog da doon yelwaan si am sa jaada fekk sëriñ ba toog ci kaw xat jaada ba mu nuyoo daamal ba leen koy jànni dal ni ca stappi ba daal koy sànni keroog la daanu dal di jibal bamba ruum nga woolu mboolem tay ba keroog la daan tasaare daara yi cumb si jiblu na gaa yi nangu leen ma silla ndaa keroog la daanu seex moodu fallu silla dal di kaanu sëriñ ma ñaaw silla mu siiw ma kaag ma bawoon na daara ni bamba ñaag ma salma ma tasdal jo daru utal fa yumri mu gën fa o waru roy fa jiblo mané lim so wa ko bok ni malum cheikh bamba xey yandu seni kër man numbi serigne matar samba mu mag ma dambe moko dalal kéro bangor mu gont kéro la ñew daru salam di sante nan alhamdulillah ala khudumi ya si dari bila kulumi keroog la niti fan ca weeru kori wa njaay laxasaan ak fare wa sëñ Musaa ne bii bés la Seydi Njaay di màggal Daaru maa la ko wax maa mokkal ne man la ko taarix keroog màggal ga ñibbisi gaa nu fàttaloo dem nga ku weddi li nga dem ko laaj Seex Mbàkke taw na jaay Seex Absa moo ko fekke moom la borom gaawaan yabal mu wooma Andak ak sëriñ ah, ka ma ñëw maraama nee na keroog la naa ma taarixal ma bés bi Cheikh Bamba ñëw ba ngir mas na ma ne yaag borom saam yéenay samay safaan fa kay boroomi jaam ngir gini cig bànneex ngeen di man bamba nag wii tëj na tooki balwa ak naqar lay yéege dem naa galwa sëñ Moussa ne maam seexante ne moo tax ma màggal bés ba muy dem galwa ngir tiis yaak naqar yaa ànd balwa naqar wa am caat ma bambay dem géej dootu fi am seex dajeel deela ni ngiij mbég ma amoon caat ba bamba ñibbisee ndeysaan euh, da fi mu ko jëlee laa koy indee rek am na benn waaye daf ma envoyé message ne ma musuma nangu ne yaay yoonu géej gi waaye tey nangu naa yaay yoonu géej gi ma ne ko moom <laughs> lay wax ni surtout sëñ ku ma ci nuyu nga ne ma yoonu géej gi sëñ Muntaxa ma yoonu géej gi <laughs> nga naan mun lan loolu la wax léegi léegi xoolal fi mu commencé foofa la kaan ya ak fuure ya fekk Sëriñ Tuubaa di fonte ngam ya keroog la daan tasaare daaree cumbu leen seex seex sépp jébbalu gaa yi nangu leen sëriñ ma si la keroog la daanu seex Moodu fàllu si la daal di kaanu xoolal loolu dëkk bu mu dem ñu ne ko yow jàngatunu gisatunu dara yow rek leen gis fóore ya ak kaang ya ak kàngam ya ndeysaan sëriñ ma ñaaw si mu siiw mu kaang ma bawoon na daara ya na ñaak ma bamba taxal daara yi def koy daaru utal koy murit mu gën faa waaru hmm? barke sëñ Tuubaa mu jóge fa dégg nga ko mu ñëw Mbàkke Kajoor yendu fanaan del di yendul waa Kajoor bawal di walwali Kajoor di juuru ñuy woy sëriñ tubaa mu dal di mbuuru mu dal di muuru mbaakol di bik di bàkk Bamba mbër ma naan ko siggil Rousseau daagul na ñàkkoor ma su siggil Rousseau sëñ Tuubaa bi muy ñëw uh, uh, sëggul siggi la def alhamdullilah ñëpp di deg assalamu alaykum ñëpp fay ko ay mourid mourid bii bis kooku waaw man Mamadou ndjay yalla na émission bi ag ak jam koku wa bismillah wa wa mala Mamadou ndjay Mamadou ndjay Mamadou Ndiaye bisimilah bisimilah ah waay Cheikh bi kontaan ma ñaan affiché leen numéro bi touti rek ndeysaan ndeysaan waaw ma ne dañoo kontaan ci waxtaan bi rek macha allah jërëjëf jërëjëf waaw waaw man nag li ma gën a bëggee mooy Baye Moussa Baye Moussa Gueye moo nga ko murid teral waaw yàlla yàlla fi yàgg te wér. barke sëñ Tuubaa teral leen ko. waaye moom day macha allah macha allah. yàlla nga fi yàgg te wér jërëjëf jërëjëf. waxtaan bi am na solo lool naa ngi toog jàkkaarloo yow. ndeysaan nga bëggee lool sax. jërëjëf. baax na baax na dama doon feeñal sama rek. jërëjëf ndeysaan waaw waaw ndeysaan baax na jërëjëf Mbaye jërëjëf ndeysaan jërëjëf jërëjëf waaw fukki fan ca weeru kor yi wax ndeysaan la njool Anta Ndiaye laxasu ànd ak fere wax suñ gaawaan keroog tapis rouge la lal ne nañ ko ko utal ne nañ ko utal sikki bi gën a seer parfum sikki am naa ci tuuti bàq bi la ko tuur ne suuf si sax war naa yëg ni sëñ Tuubaa ñibbisi na tër na nit keroog bu bëgg koo rendi waaw waaw mu ne keroog lañ ànd soox mu wër xablom ba nan ma naan ma musa yegal ni sëñ gawanam baatin ren lay mujjé magal daru daru salam magal gogu upp upp na baña dem bismillah bismillah assalamu alaykum wa alaykum salam wa waaw murit boobu. ñu ngi lay bax di lay ziaré ñu ngi lay ziar bu wéro wéro content rek yow barke sëñ Touba. ndaysan ma gëna a bég barke sëñ Touba. ñu ngi koy wax Alassane Ndiaye ñi woyé fi salu Saloum. ngay woté Salum, Salum. Salum, waaw góor. Touba Salum. Touba Salum, macha allah suñu maam Mor bi ngay wax nee naa trop macha allah bari suñu Touba. jërëjëf jërëjëf. suñu xool dafa seen trop billaahi wallaahi tallaahi. ndeysaan ndeysaan jërëjëf. ñun suñu Touba rek lañ am moom lañ bëgg moom lañ yaakaar. alhamdulilah rabbil alamin. waaw barke suñu Touba ñun amul léegi lu dul suñu Touba. moom rek la am moom rek la am. wallaahi na murid yi daasaat seen pas-pas joxaat sëñ Touba seen bopp. barke waaw lépp luñ am sëñ Touba. jërëjëf jërëjëf Desan, Serigne Sidi Ñang Touba Kër Ñang ndeysaan jërëjëf jërëjëf ñin ku baax jërëjëf waa Kër Ñang ñi ngi leen di siyaar ndeysaan ndeysaan jërëjëf jërëjëf maa ngi siyaar baax a baax a baax a baax Kër Ñang ak ñépp ndeysaan jërëjëf ana sëñ Sidi Ñang mi ngi fi waaw moom mii di waa. ne ko dama nam mom sama serigne la sama xarit la dama ko nam. ku baax ku bax a ngi nii. ma ko nuyul bu bax a bax a baax a ku bax a ak maam bay ñang wa keur ñang gep rek. wallahi wallaahi. Eh, jërëjëf sëñ Abibu Mbàkke li man man man man man yéen rek laa bëgg. man waa rek. Alhamdulillah. lii rek maam lañ manqué daal ku wax sëñ bi te yàlla tax kenn du kenn jërëjëf jërëjëf ah, di ñaan di ñaan allah jërëjëf murit jërëjëf jërëjëf waay ñu ngi ziar baax a baax allah alsaan ziar alsaan sëñ alsaan jërëjëf maa ngi koy siyaar ak oh bimne bimne, kan moy jëkëte de fatna lu ne bam dess nit oh boobu gisatut sëñ gaawaan nekkatul ngir magam ji ci biir rek am ku daw ne sëñ bi sëñ ka seex anta tër na nit fa ba mu waxee loolu daa am ku tëdd ne moom day faatu kooku ba tey ay sëtam ñu ngi leen di siyaar Daaru Salaam mooy sëñ Ousmane Kamara bisimilah. salaam. bisimilah. ah waaw waaj da ngay wàññi télé bi. kooku dangay wàññi sa tele bu baax a baax moo tax lii di am daa ñu ngi lay siyaar baax a baax bisimilah euh, mu mel ni rëcc na nu xaar keneen ndeysaan nga xam ni dane bu bu bu bu noppee ñu teg ci Moodu Maamun sama taaw ak alaaj tàkku nga xam ni ka njëkk ne maay faatu dane moom na ay doomi boppam ñëw ak i taalibeem ndawa dem ci sëñ Tuubaa ne ko ah sark jee de gisatul dara nit de la bëgg dem na ba ray ay ay ay mbaam jëllu ko tan yi suñu saako wax na ko fukki nag ak ñaar ci bis bu nekk ànd ak ak fukki lay sak ba muy xëy bisix ne ma rendi nit kuy taxaw jox tan ya ndax nu mandi dam ne ko jaaraamaa mu jàpp jam jibal magam sëriñ Mamar borom sam sëñ borom sam ñëw ci sëñ Tuubaa Mor Jaara borom sam moo ñëw ci sëñ Gaawaan sëñ ko te nga caa àgg ba ba ba balaa loola di nek booba nekkatul daanu ne jil mag gi ci biir rek la gis ndeysaan borom saa saamu ñew ni ko cheikh luy doy doy na cheikh luy doy doy koko koko fim ne borom saam lañ ko rafaatale bisimilah ah, kooku waaw ñu ngi lay gep yaag la Madiyaana ndaysan ah bismillah daa mel dafa jege télévision moo tax muy def noonu euh, bu ma jëlaatee ñaari téléspectateur rek yëkkati jotaay bi ñaar rek ñaar ñu dugg rek duggal murit yëpp barke Cheikhul Khadim ndeysaan sëñ Bamba Mbuub euh, sëñ Bamba Mbuub maa ngi koy siyaar xam ngeen nii su ma xamoon ne nii la demee sax moom day ñëw wéttaluñ ci émission bi noo koy siyaar baax sëñ Bamba mbub di ko ñaanal bu baax a baax barke Cheikhul Khadim sëñ Sidi Ndiaye bég na ca France ga mu nekk soxnaam noo ngi koy siyaar bu baax a baax siyaar baax Eh, mboolem jàmbaari sëñ Tuubaa soxna Faat Kiné Gueye Touba Bologna ñoo ngi koy siyaar yaayam soxna eh, soxna Asi Dioum moom itam jeex tàkk ci Serigne Touba noo ngi koy siyaar bu baax di ko nuyu waaye noo ngi siyaar ñi doon seetaan ñi bëggoon a dugg te duggunu ak ñi nga xamante ne jot nañ seen i appréciation boobu ba tey waa pooru Dakar ña nga fa ndeysaan mool yëpp kenn ku ci nekk ubbiwoo tey ngir lan di di di di di màggal jéego yi fa wàccoon tey nga xam ni tey bu wàccutoon ci suuf si dara du baax li mu wax rek mooy i jaron joo ilaa xaw mi saadadana wal tak fi naa yow ma jàmmi xan xiniraana sama dellusi ci réew ma na nga na na na nay texeb nay sama dellu si xam nga kii kii kii lu ko waay wax hmm? lu ko waay wax amoo jom sa texe la njëkk a lijjanti yow yow mii wax sa texe la njëkk a lijjanti waaye nag àjjanay gàcce ndekete dina am ñu ko am kon mu mel ni fii la ñuy euh, ndar keppe émission bi Euh, incha allah ñu doon topp ci YouTube bi ñu ngi leen di siyaar baax a baax mu mel ne lii rek lañ bëggoon nit ñi xam ne tey jaloore juree amoon lu lu mënutoon lu warutoon a am moo am tubaab bi mu su fee jëli waaye sëñ tubaab toujours rek ci lu yoon wut maanaa rek ci lay dikk moom waaw moom moom moom yàlla yonent yàlla saa mi mu sàkk amul baay yéen wut maanaa asamaan si lim nit ñu kenn xamul lu ko téye yéen wut maanaa lu lësigul waaw Sëñ Tuubaa doo ko seet ci logique mais nii mu def moom it ànd ak ki noonam lekkoo naanoo tëddoo tibboo sexoo Baye Modou Mbaye Samb dinu ko wax saa nga dellu ci say ci say ci say nit di bañ la nga daan bañ fa nga bëgg a tëdd fa nga tëdd say tëdd fa say tëdd fa moom rek ko am loolu yéen wut ci ku yor xalima ànd ak ñu yori fetal te yow yoroo lu puso loolu yéen wut maanaa mais nag yooyu la yàlla di denc yëfam waaw mujjiza la yonent di def sëriñ bi lim fi def yëpp xar baaxi yonent mooy sa tàmbalee feeñ mujjisaati rasuul mooy sa tàmbalee feeñ wallaahi dàmbàkke gënee su baax caqab kër maaram diggal ba lay raas ñu teew ak ñu teewul xasal du seen maas ndeysaan ñu teew ak ñu teewul xasal du seen maas bu nekkul di bindit boo ma ngay yëri mool bu bët yay nelawit xol ba moom ma ngay xool bu cër yay nelawit ruu ga dem aras moom xanaa sax war na buraax mbam war ca ay soom laylaa du ko tee dem ca pays diwaan ca passion yañ sàkkar rijaale lay borom taal bi de sàmmal na saaru mbardaan tabaaraka ma jàngal ko saaru furxaan <laughs> ndeysaan kookuy sunu sëriñ ñun kii lañ contrat doy nanu neex nanu nanu doni murid gëm seigne Touba murid yi lima len di wax moy bu ci kenn sol lu ciek bu len sol ay cris Cross, de len sol ca tuba yi caaya di jël baylat di ko sol bo len waccion New York sax sol len seeni baylat di teud fu noy ñun wa daru salaam nak waxale wu ñun dégg lim ko wax cheikh ci banex nga yegge yalla ci jaxaso ngay kawé fa yalla man bambu wéet ak natou ak dogal ak galwa balwa laa yéege yàlla dem na galwa dako wo mu ñew mu ko sa borom de neena na defete sax safan mu def ko tiyaba mu ne ko du ya tax mu na mu ne ko ak may def dem bisu penc ba duma fi def lu ko naqari ndax sa daraja lam ko maye maa la koy sagale koo seigne touba lu ne mu maye ko defer ay hmm nga gis limu def tek ci sa hmm dem jote ay financement tax nga bëgg ñew bëgg mom yow dinañ dinañ la régler ba nga ni cocc waaw montre barke Seexul Xadiim ndakaaru gii moom nun wa kuréelu saytu yoon wi ni ngi saytu am na ñoo ne nañ rëcc nañ leen barke Cheikh Ahmadou Bamba kon asalaamaaleykum wa rahmatullah noo ngi ñaan ci barke bis bi ku doon seetaan émission bi ma ñaan ma photo nday soxna nday faatu tage bobu murit yépp ñaan fukki lixlaas ak benn soxna nday faatu tege di doom ci alaaji abdoulahi tege sunu xarit kii sunu doom la sunu rakk la wàccib liggéey day ndeysaan yiw lool baaxoon lool waaye nag yàlla na gisee ak sëñ tubaa ci barke guddi gi maa ngi koy say ziar baax ajaratu moomi kebe waaye maa ngi koy ziar baax sëñ ablaay ñoom sëñ jiili ñang sàll du sàll gën ko xam sàll nay leer boo sëñ baar ñoom ñëpp noo ngi leen koy jaal ci barke cheikhuna ahmadou xadim euh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بركة إجرام جو إلى حوم صحابة دنال تكفينا يوم جامع خان خنجرانا بركة شيخ مدو بامبا يلا مريني نوي سادي هم مامون سيمو سانيا بسكرام لن يجد